leen ziyaara di ñaanal it di leen sàkko it ñaan nee ci làmmiñu suñu sëriñ Cerno Haamidu ak ci làmmiñu xadara bi yëpp mu ànd ak ndigal Cerno Bachiru Muntaga Daha Sel Hadji Omar al Fuutiyu ngi wax mbooloo mi yëpp bismillah ne góor ci ak jigéen ne kenn ku nekk ñu ngi lay dalal ci guddik tey bii ne ñu am mbegte tamit lool ci fekkee guddi gi ne ñu ngi ñaan yàlla yit ci barke guddi gi ak barke weer wi ndax xam na ñu ne weer wi moom mooy sangu yi ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa ngir guddik juddoom ne kon nag lépp luñ ci def ci jaamu yàlla ne yiw la ñeel ñu ne suñu njëriñ la te it ndigal la it jëmele ci ñun ndax yàlla moo ñu jox ndigal nañu màggal guddi gi ne nekkul pour guddi gi màgg guddi gi kay màgg na ba noppi ne ba ñun ñii ñu mën cee màgg ba ñu mën cee mucc ba ñu mën cee raw te inchaa allahu it noonu la ko yàlla di dogale ndax yàlla du wax di boppam ne ko julli ci yonent bi ko kay aljanna rek mooy këram ndax ku mucc rek raw nga ne boo rawee nag ne da ngay nekk ci ngërmande yàlla boo nekkee ci ngërmande yàlla rek ne aljanna mooy doon sa kër nee na guddi tey bii ne lépp luñ fi def nu mu bëree ak nu mu néew yàlla nañu yàlla nangul yàlla nañu yàlla nangul ne ñaanoon nañu daaw ne yàlla nañu yàlla may fekkee na gën i déwén yàlla may nañu fekkee ren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 خلق كل يا رب صل على المختار من مضار والأنبياء وجميع الرسل ما ذكروا مولاي كل يا صل ربي على الهادي وشيئتي وصاب من لطي الدين قد نشر مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم وجاهدوا معه في الله واجتهدوا وهاجروا وله وقد نصروا مولاي صل وسلم الخلق كلهم وبين الفرض والمسنون واعتصبوا لله واعتصموا بالله فانتصروا مولاي صل وسلم دائما ابدا الخلق أذكى صلاة وألمها وأشرفها يؤثر الكون ريا نشرها العدير مولاي صل وسلم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 خير الخلق كلهم وعد ما هوت الأشجار من ورق وكل حرف غدا يتلى ويستطر مولاي صل وسلم دائما أبدا خلق كلهم والوهش والطير والأسماك ما نامن يليهم الجن والأملاك والبشر مولاي صل وسلم دائما أبدا على خير الخلق كلهم والزر والنمل مع جمع بكذا كذا والشعر والصوف والأرياس والوبر مولاي صل وسلم دائما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 الخلق كلهم ووالدنا وآلنا وجيرتنا وكلنا سيدي لله في مفتقير مولاي صل وسلم دائما للخلق كلهم وقد آتيت ذنوبا لا إداد لا لكن أفوك لا يبقي ولا يزر مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك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 أرجوك يا ربي في دارين ترحمنا بجاه من في يديه صاب الهجر مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبي خير الخلق كلهم يا ربي عازم لنا أجرا ومغفرة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 تسليمي وجد لي أثمان ذي نورين من كملت له المحاسن في الدارين والظفر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 خير الخلق كلهم محمد أشرف العرب والأجم محمد خير من يمسي على قدمي مولاي كل محمد باسط معروف جميعه محمد صاحب الإحسان والكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك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 على حبيبك خير خلق كلهم محمد خبيات بالنور دينته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 لن دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد ضايق للضيف مكرم محمد جار والله لم يضم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك بك خير الخلق كلهم محمد طابت الدنيا ببساته محمد جاء بالآيات والحكم مولاي صل وسلم دائما أبدا على بك خير الخلق كلهم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 mu nekkoon kenn ci sëriñ bi yàlla dogaloon ren ji mu génn àddina mu doon ànd ak ñun ci jotaay yu mel nii ñu yéene ko yool bi nga xam ne am nañ ko yëpp yal na ko ci yàlla sédd yal na yàlla yeesal mànd ci moom yàlla tàbbi ko ajana yu gën a kawe ak mboolem neewu jullit ñëpp bu ko kenn fàtt ci ay ñaan ne lu jiitu yëpp mooy sant yàlla ci xéewalu yàlla yi sànq dégg nañu suñu xarit suñu soppe ki nga xam ne macha allah kenn la ci Thierno sànq moo ubbi jotaay bi moo ubbi waxtaan bi sànq dégg nañ ci ay kàddoom. ne Oustaz Salihu Dieng it mu ngi fi incha allahu dinañu waxtaanal ba ñu kontaan. ne suñu mag it ak suñu soppe mu it ki mu nekk it kenn ci Ceerno incha balaa sëriñ bi di yedd moom it dina ci am ay kàddu yum ci sànni neeñ moom boo gisee incha li nga xam ne moom la bëgg a wax tuuti mooy téere bi nga xam ne moom lañ doon wax léegi moom lañ doon jàng moom lañ doon wéy muy téere bi nga xam ni Mouhamadul Buseyri yi moom moo ko liggéey muy burd nee na lépp nag ci ndigalu sëriñ bi macha allahu ak yar ak teggin ci ak ci ci ci ci ndigalam nee na macha allahu jotaay bi amul jotaay bu ko gën a rafet ndax kenn ci ñun kenn duñ ko wax toogeel nii wala deqo wala doxaleel nii loolu nag yàlla moo ko jagleel sëriñ bi dafa bëri woon di wax moom sëriñ bi li ñuy miin ci ay waxam mooy moom qualité mooy li nga xam ne moom moo ko gën a yitteel waaye tey am na qualité am na quantité ndax ci biir zaye bi fees na ci biti yëpp fees na ba nit ñi sax daanaka amuñu fu ñu toog ne bu ngeen déggee ñu bëgg a wax ci Mahamadul Buseyri yi ci ay ay xasidaam dafa way rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ba ñu nangul ko ba mu dugg ci ngërmande yàlla ha allah weltanimo nelaɗo allah sallallahu alayhi wa sallam weltanimo kanko ne heddi nee na ba yàlla kontaan ci moom yonent bi sallallahu alayhi wa kontaan ci moom ba da ngay dégg sax ci biir ay xasidam da ngay dégg muy ñaanal jullit ñi même nee na boo ko dul dégg lu muy firi buñ koy buñ koy woy del wax amin rek yow mi di ko dégg nde o yimi fa mablawul ilmi fiihi annabi sallallahu alayhi wa sallam kañum feeñani mo wi ko annahu hayru halqillahi kulli nee na bokk na ci firnde bi nga xam ne yàlla nangul na ko xasidaam bu tedd bi ba mu yeggee ci fa mablagul ilmi fii annahu basharun yonte bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko mottalil xasida bi mu ne ko wa annahu xayru xalqillahi kullihimi eɗen nganndi fa mablagul ilmi firtata ko haa pirta ganndal kala kene wiye ganndal haa nee xam nañu ne fu ma la wul elmi lu muy firi mooy yemukaayu xam-xam waaye nee xam nañu fu lu waaye xam xam-xam mu ngi yem ci yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo tax Muhammadul Busayri yu ne fii ci moom la ci moom la yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne mu delluwaat من هو تربوري بي مؤم مومنت يالله محمد صلى الله عليه وسلم نك يو موم نك موم نيت لا موم محمد البصيري من لوكو غنا ييم ت رسول الله صلى الله عليه وسلم نيت لا ني بمو واخي واخ يوي مو ملني كو تخاو خاموتو لوم في صلى الله عليه وسلم موم مكو غاغانتي شي خاسي تدر بعد الفسر وانني خير خلق الله تدو قانون أن صلى الله عليه وسلم وأنه خير خلق الله كله كباتن دفاي دفاي لني وأنني خير خلق الله كلهم وإن صلى الله وأنه خير خلق الله كلهم محمد البصير مكال هاو وي كانكو دي خير خلق الله ɓuri مودي e kala ko allah tagi ɗum kañumen fof ne mamadou boucheri yu mo mi ngay wax waxam de na ngay yëg ni lépp mboolem li yàlla bind moom moo sen ƴeewi ɗo udditir yimere nde ɗo ɗo julɓe guttirɗum ɗo mbiyata ko mawlaya mawlaya furtata ko e jomum e kalifam ne boo xoolee jullit ñi fuñ koy ubbee mooy xasida bi nga xam ne bayit bi nga xam ne moom la ñuy awoo comme niñ koy waxee lu mu ubbee mooy mawlaaya mawlaaya mooy yow sama borom yow sama borom yow mi nga xam ne ci yow la ñu féete ene firta ar jomum kono ene holla kadi less leskinaare hollude min koye maccude ma alaa ko nganndumi alaa ko mbaawmi koye ma tan kuccumi nen dey firi itne man sa jamla amulluma man tekkiwoma dara man sa jamla yew yaye mawlaya ɗum woni ko sabu ko njuulu allah tan wiyete ko hisnu hisnu yurmo woni ne lumi jublu mooy mooy ñaanal ñaan ñaan yàlla ñaan yàlla mu mu mu yër mu yokk yërmandem ak jàmm ak salaam ci li nga xam ne mooy salli wasallim sallim mooy ñaan googu mu ñaan ci boroomam mawlaaya salli wa nee na nag daa iman abadan mooy melo goo xam ne dafay sax dafay sax ba du am fenn foo xam ne di nga yëg ne fii laa yemale cant gi nga xam ne namm na ko ci borom tabaaraka wa taala mu ne lii lii ma wax nii kan laa ko yéene kal ci kan laa bëgg nga defal ma ko man man mii nga xam ne man sa jaam laa ci yow mii ma koy sàkku yow sama borom mu ne ala habibika ci sa soppe bii ki nga xam ne moom rek nga bëgg xayrul xalqi kullihimi ne lu yàlla sànk lu yàlla sàkk ci àdduna moom mooy ki nga xam ne moom moo ko gën o anndi o jaɓanaama ko allah ko naati e weeli allah addi en ɗo enen ko nootaade jiyaade allah o eɗen jogii njooto kadi ko jaɓanaaɗo ñu yëg ne comme moom yërmande googu am na ko ci njabootam mu wax ko ba ñu yëg ne yàlla nangul na ko ñu nit loolu moo ñu ommat indi ñu fii ci ëtt bii nga xam ne macha allah kilifa gi it am nañ yaakaar ci moom ko yàlla nangul la ba boo xoolee ëttam bii di nga yëg ne yàlla nangul na ko. kala ko ƴeewete aduna ƴeewete ko ko weliyo allah emo lépp lu ñuy xool ci àddina mooy ngërmande yàlla ak ñi nga xam ne boo leen xoolee di nga yëg ni ñii ay jaamu yàlla lañu yàlla nangul na leen loolu boo ko xasee am rek daanaka matal nga ndax fekke na ni bu fekkente ne mel nga noonu ci yàlla loo soxla ci yàlla yàlla da koy def te it ñaan gu na njaboot gi ba ñaana leen tamit yàlla da la koy nangul يا ربي بالمصطفى بلغنا غاسرنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم moo tax Mamadul Buseyri yu di wax ne yaa rabbi bil Mustafa balligh maqaasidana waghfir lana ma mada yaa waasi arruhum omo anndi o jawanaako allah kono haa hannde omo duwono duulɓe omo duwono aduna ko kono rewi kadi koye nelaɗo ɗum ko yaa rabbi e joomam bil Mustafa sallallahu alih wa sallam ay xoolal xam nañu yàlla nangul na ko neena xamna ni yàlla nangul nako ñaanam gi nga xamne ñaan nako waye waaye fu mu ko yaakaare moy ci rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa ne rabbi waye nak bil mustafa balligh maqasidana ne nag ñu mottali lépp lu ñu bëgg ak lépp lu ñu yaakaaree ci yow yàlla nag ñu defal ñu ko gila ñande o wi noon ha ha ko firto kala arɓe haa ɗo es mbi noon way kono omo juuji nde o wi noon noon allah jaɓide allah firta aade allah no wonoto ɗon taw ne momo ko tambeleede def momo ko taalife mom teede bi ak nom ko waxee woon dippi boobu jotaayam boobee ba mel ba tey jii ni fépp fu jaamu yàlla yi toog ba wax xasida boobu mel na ni mu ngi toog ànd ak ñun ndax yàlla du fecc benn yoon kollëri inna allaha la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim allah ala ɗo meeɗi waylaade allah gila annabi adama allah gila adduno ala allah anda baaɓe o allah sallllahu alih w sallam o woni allah anda men hande sen gummiɓe ɗo ko woni allah gonoɓe allah kota mangoñi waxmele yallah innallaha la yoxayir maɓe gomin ila axir dafay wax ni yallah musul musul soppeku ci ci ci jëmmam musul soppeku ci doomu adama ila ila allah innallah la yoxayir maɓe gomin hatta yoxayir maɓe a fusim allah meeɗa waylade heddi ko ha jamano latta hunde allah latta waade no waano e allah ndiyam woni noon jamono moye ñaw nit ñi nit ñi soppeeku ba bu ñu amee soxla ci yàlla bu ñu ñaanee ngir seen meloga yàlla bañ a nangul seen ñaan waaye nag yàlla fa mu nekkoon rek la nekk musul soppeeku o duwni ko addino fof o wi ko wahfir lana ma mada mota bumo woote wootem googu bumo ko ñaane yàlla waaye dafa ñaanal adduna bi yëpp lu tax ndax dafa ne wahfir euh, lana ma mada ya waasi a rohumi wahfir lana mu ne wahfir lana nag ñu jéggal ñun ñëpp ak nu ñu mënti toll yàlla nag ñu jéggal ya waasi alkarami yow mi nga xam ne yow yaa yaatu teranga te kadi wonɗo wa gaariha am na fu mu waxee it li gaariha wa saamiha li qaariha wa saamiha wa jami muslimina ayna ma hadaru woni an ɗo yayafo denndangal jannguɓe nde ɗo yimre kala ɗoɗo jannga yayafo jomumen muy wax ni it xasida bi fépp fuñ ko jàng yow suma borom na nga jéggal ñooñee toog di ko jàng ñoom ñii toog it jànguñu waaye ñu ngi déglu ñoom it na nga leen jéggal mu ne sax ak ñi nga xam ne ay jullit lañu fu ñu mënti nekk ci aduna bi na leen dugal ci yarmande googu na leen jéggal léegi lu ci taftal mooy wa walidina wa ahlina wo jiiraanina ne suñuy mboolem way jur ñi nga xam ne ñoom weesu nañu jàll nañu uh, ne xam nga waalidi lu muy firi mu ngi mel ni nga ne sama way jur waaye kenn la ne boo ne wa waalidiina dippi sa way jur bi ba papa Adama ne ñoo ñëpp ay way jur lañu nee ñaan mboolem lu ma ko mës a nekk wayjur rek ba maam Adama ñoom ñëpp yal na leen yàlla jéggal. nee mu toftal ci wa ahlina ak ay suñuy mbokk. sa yeehi an a hooti to leegal moɗon koddiɗo ma wo dañe jammo gam barke annigue ne yo min nga xam ne yaa demal sa dëkkandoo bis boo ñibbee yu ngir barke bi nga toog ci jotaay ba nee na yóbbul nga ko si sérice ga ci barkenti yàlla mouhammad sallallahu alayhi wa sallam waɗi ceerno no haala wiye mbattu moo tax sëriñ bi di wax ne nañu bàyyi ñuy xel ci burdu bi ndax njëriñ kese la moom sëriñ bi moom moo ko wax ci ndigalam même sax koo xam ne euh, bàyyi na bu ko bàyyee xel teg ko ci këram amaana sax dépasse doo ko manqué ci sa biir kër wawi jimɓe mayre wonko ganduɗa e mayre hay sa wawa kam jima hen kam battunorɗa hay bu dee am na loolu yàlla wërsëgal nga mën cee jàng ci téere bi wala bu dee sax amul loo ci mën a jàng waaye na nekk sa biir xol waaye nga teg ko nga koy kontaane ngir rasulullah mawɓe ɓe fof ene nganndi ɗum holko holkoɓe teskii ndax mag ñi fuñ ko teg mooy seen cofeel ci yonent bi sallallahu alayhi wa ndax buñ koy jàng wala ñu koy xool seen cofeel day yokk ngar ngir bëgg gi nga xam ne bëgg nañ ko rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam enen gacciɗoyle men en gacci lelde men ɗaɗɗe en nootima zawiya cheikh oumar jiyaɗo allah o nen arya yeeseede enen hannde ngannden wonko nani en ne ñun nag kon nag nañu santi yàlla wàcci nañu suñuy nelaw wàcci suñuy lal yu noyya ñu daagu ñëw ci zawiya seraj mural fuutiyu radiallahu taala anhu ñu toog toogaay bi macha allahu ñu fas yéene teewru sëriñ bi bu neexee yàlla dinañu xam ne kat tey jii incha allahu dinañu gam weli ne bu dee dina am foo xam ne def nañ fa gàmm mu neex ne suñu gàmmu gi ci la bokk bu dee am na fu ñu def gàmm ñu nangu ko am nañu njort bu rafet nii suñu gàmmu gi ci la bokk ne lu tax loolu imam la imam ibrahima la imam zawiya bi ak xale yi nekk ci daara ji di jàng alquranul karim xale yi nga xam ne amuñu benn bakkaar lépp lu ñu ñan yàlla yàlla nangu na ko ñooñu ñoo toog jàng téere yàlla bi ba matal ko ñii xaar nag jaamu yàlla bi sëriñ bi incha allah bu ñëwee dañ koy ñaan xatmu bi te jox nañu ndigal nañu def astaghfirullah def nañ ko ci fukki eh, fukk ak ñaari junni ne boo ko defee nga def salaatul fatiha ne fukk ak ñaari junni nga def la ilaha illa nga def si fukk ak ñaari junni ne nga mujjantel sa liggéey ci turu yàlla latifu nga def ci lu bari nga jeexal nga toftal ci téere bi ñu woy léegi nee ñu ñu boole ci jawharatul kamal sëriñ bi dañuy waxtaanal jawharatul kamal te te am na ñuy njort it ñu ngi ñaan ñu ngi ñaan yàlla ndax moom sëriñ bi bis bu mu ñëwee ne am na feeñ goo xam ne dina ko feeñ jëmale ci jullit ñi. laylatul eh, xati laylatul xatmi menta wona ka laylatul taw mo wonamo xatmi o e eh, gadiɗo ono e eh, jamma mi cakkitiɗo no wiyatano kadi katmi e tawana andi katmi ko dow leytul kadiri min cakkitiɗo ne suñu lelatul kadiri bi mujjee fii gis nañu bu sëriñ bi ñëwee gis nañu fu nga xam ne feeñ feeñal na ko jullit ñi li mu wax ci laazimatu tijaani ñeel tijaaniya li mu wax ci ñetti téeméer ñi fa nekk ak lu mu ci firil jullit ñi nit ñëpp kontaan ne am nañu ñu bëri ñu ñaan yàlla ñu ne sëriñ bi yàlla de mën na ñun ñu fekkee fi muy war a mën a waxtaan salaatul fatiha keroog la ñuy xam nag nee jàmm yàlla bi am na lu ko yàlla defal keroog bu ñu dajee muy waxtaan jawharatul kamal muy wax li nekk ci biir keroog la ñuy xam ni am na lu yàlla defal jàmm yàlla bi nee na kon nag ñu ngi ñaan yàlla yalla nañu yàlla may fekkee na nii yi déwén ne képp koo xam ne fekkee woon na daw fekke wu ko ren ñi ñaanal leen yàlla yàlla na yàlla yërëm leen jéggal leen ndax amul loo xam ne def nañ ko yàlla ba tax yàlla jëlee leen fi ne du loolu moo leen fi jëlee de ndogalu yàlla la ne képp ku bësam jot dëgg dafay dem nee ñun ñii desandi fii nekkul ne am na lu ñu def ci lu baax moo tax yàlla bàyyi ñu fi déedéet mbaaxu yàlla la ak yërmande yàlla moo ñu dugal ci boppam moo ñu it des fii ba ba ren nee ñu ngi ñaan yàlla yal nañu yàlla may fekkee déwén ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne fii lañuy ñuy wax ji gudd na incha allahu suñu sëriñ Ceerno Yahya dina ñëwee ci kanam ne lu jiitu sëriñ bi di yegsi nee na kenn ci ñun bu mu nelaw de guddi tey bi guddi bu yéeme la ne kenn ku nekk na nga am loo yóbbal ca nga xam ne mooy sa bërëb yow ak say dëkkandoo yow ak say njaboot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 وسر أسرار تجلياتك القدسية ومن تفجرت منه ينابيع الحكم الإلهية والمعارف اللدنية وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ورضي الله عن صاحب الختم والكتم مولانا أبي العباس أحمد التجاني رضي الله تعالى عنه ورضي الله عن حامل سره مولانا المجاهد الأكبر شيخ عمر الفوتي رضي الله تعالى عنه mbokki jullit yi ginnaaw bi ñu santee yàlla di julli ci sayyiduna muhammad di julli ci ay ñoñom ak i saxaabaam ñoo ngi leen di nuyu di leen ziyaare di leen balu di jiital ci nuyoo bi alxaaji xaamidu yorobaan ñoo ngi koy nuyu di ñaan yàlla yàlla na yàlla dolli ko wér yéena ji mu am ci liggéeyal xadara bi yal na yàlla may ko kàttan mu àggale ko di nuyu ñi toog ci zaawiye bi ñëpp góor ak jigéen mag ak ndaw bàyyiwuñu kenn ñoo ngi nuyu ñëpp di leen ziyaare burdi bi ñu doon jàng léegi comme ni ko imaam Bachir Chaw waxe noonu la demee ñu baree bëri ñoo ngi jàng burd guddi gu nekk walla ñu dem fu ñuy jàng burd waaye boo leen waxoon lu tax ñuy jàng burd xamuñu ko benn nitu yàlla bu mag لمحمد البصيري moo taalif burd ñu bëree bëri foog na ni Seydil Xaaji Malik moo ko taalif waaye al burdu laysa min taalifi Seydil Xaaji Malik min taalifi al waliyil kabir al aarif Muhammadul Busayri محمد البصيري مو تالف برد لن مو تخ مو تالفكو محمد البصيري موسونا فيبر فيبر بو متي واخنا ني دافا ديمبا دافا باراليسي با بن كوتيم بي دافا دي دكتور ييغا خامني نيوم لا بوكولون جامونو كين كوتي نيك ديمنا سي حضره pour nga def pour mu defal ko shifa ci feebar boobu nga xëy ni moom moo ko dal feebar bi ko daloon dem na ba xaw na gàllankoor jaamu yàllaam moom Muhammadul Busayri lottu na ci faju docteur yëpp lottu nañ ci moom pour faj ko ci feebar bi nga xëy ni moom moo ko dal mu tëdd guddi ni waaw man maa ngi dem ci doktoor yi bàyyi fi docteur docteur yi di Seydina Muhammad naa def tawasul ci moom ñaan yàlla ci barke mu saafaraal ma feebar bi nga xëy ni moo dal ci sama kaw ci la jël xalimaam moom Muhammadul Busayri di tagg Seydina Muhammad bu mu demee ba agsi ci خصيدة بي دفع مبلغ العلم فيه أنه بشر ممن يدفع قاك خلي يخمل قاك موي تشان مبام وار قصيدة بي دفع مبلغ العلم فيه أنه بشر مبام وار كبمي نتيون يوننتي بفعنكو نكو وأنه خير خلق الله كلهم كون محمد البصيري موخ فمبلغ العلم فيه انه بشر ويونت صلى الله عليه وسلم موكو موتر القصيده بي نيكو وانه خير خلق الله كلهم تيلا جال لوخو مو سيل با موم يونت تيكو تي ديغ بوب با ديغ بوب با سيريو رايكو با تي ديغ با تي سوفو تانك با Mouhamadul Busayri ne bi mu tegee loxoom bu sell ba ci sama kaw bopp raay ko ba sama tànk yëgatuma metit sama yaram ki la yàlla saafara feebar bi nga xëy ni moom moo ko dal moom Mouhamadul Busayri ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa loolu moo tax mu taalif burd moo tax ñu ni bundee jàng burd yow mi feebar yéen ci wér boyene wir ci jamono yi ni jàng burd yàlla dina ci defal shifa comme nim ko defalo muhammad al busairi yow mi beug gis yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ci gént wala sax ci lu gént ndax amna ñuy gis yonnati bi yaxzatan la manaman amna ñu yàlla may ñuy togo ak yonnati bi sallallahu alayhi wasallam waye bo beugé gis yonnati bi ci gént dee ko teewlu di ko ñaan bu ñu jàng burd yàlla mën na laa ba nga gis yonent bi sallallahu alayhi wa ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam man raani fil manam fa ka raani xaqan fa inna cheytaan laa yatamathalu bi yonent bi moo wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee gis ci nelaw gis nga ma dëggantaan man yonent bi cheytaane du jël sama melokaan mbokki jullit yi kon loolu moo tax ñuy burt ñoo ngi ñaan yàlla ci mbaaxu yonent bi barke bi nekk ci burt nekk ci guddi gu tedd gii yàlla na ko yàlla sotti ci réew mi sotti ko ci àdduna bi yépp bi jaay seydinaa muhammad sallallahu alayhi wasallam nu ñëw ci wax lenn ci jukkay yonent bi sallallahu alayhi ndax bu ñu waxee gàmmu nag li gën a am solo mooy ñu wax jikkoy ki tax ñuy gàmmu muy Seyduna Muhammad ndax nit ki mënoo koo bëgg te xamoo ko nit ki mënoo koo sopp te xamoo ko يونتي بي صلى الله عليه وسلم كوكو سوب دانكوي توب سي سنام بو ديمي سي تيري بيغا خامني موم لا حاجي حامد يورو بند سي دوندو يونتي بي صلى الله عليه وسلم تودكو نايد المرام في مدح سيد الانام صلى الله عليه وسلم الحاج حامد يورو مو بند تيورو بوبو nee na wa man yuhibbu rasulallahi yatbauhu fi kulli amrin daa ilayhi yaltazimu xaamidu yorobaan nee na képp ku bëgg yonent bi da nga koy topp ci sunnaam nee na njariñ nekkul ci ni bëgg naa yonent bi te sama yoon ci sunnaam moom la Sidi Xaaji Malik di wax ca xilaasu zahab waaw nee na walaysa nafun ala xubbin bila amalin wa taabian sunnata almuxtaari tëxtanami si di xaaji maa nee na njariñ nekkul ci bëgg naa yonent bi te sama yoon ci sunnaam nit ki boo ko bëggee da ngay topp te lam lay sant bàyyi lam la tere loolu mooy màndarga bëgg yonent bi salaa sallam يونس بن صلى الله عليه وسلم بودي ميتي صوت الحشر يالله سبحانه وتعالى ميغي واخ نيون جوليتي ني وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وا يالله نينا ليپ لولين يونتي بي واخ نيغين كو جيفي ليپ لولين يونتي بي تيري نجن كو باي مبوك جلتي كون يننتبي صلى الله عليه وسلم دان كوي توب جي واخ اك جف دون تلم واخ دم خول كو جي القرآن جسو نيكو واي دان كوي جفه بين حديث غني خمني ابي هريره رضي الله عنه مكو نتلي وعن ابي هريره رضي الله عنه خال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين المرء وعمتها ولا بين المرء وخالتها ابي هريره رضي الله عنه na توغنا naa جتا jotaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ni dëgganul nga boole jigéen ak bàjjanam ci sëy mu ñu dëgganul ci sëy ngay boole jigéen ak ndeyam ju ndaw loolu boo demee ci alxuraan doo ko fa fekk waaye yonent bi sallallahu moo ñu ko tere ci sunna ndax yàlla moo ñu lu leen yonent bi sant na ngeen ko jëfe lu mu leen tere na ngeen ko bàyyi kon yonent bi sallallahu mbokk yi dañ koy topp ci sunnaam bokk na ci sunna yonent bi bëgg alquran gis nga cosaanul gàmmu mooy alquran ñu bari dañ koy koy fàtte wala dañ koo dañ koo bàjjewul xel mais cosaanu gàmmu mooy alquran bi nu jàngee kaamil bi léegi ba tëj ko bu nu yëkkati woon jotaay bi gàmmu nanu moo tax bokk na ci sunna yonent bi nga bëgg alquran bëgg ñooñu alquran yonent bi sallallahu nee na bu yowmal xiyaamee alquran day soppaliku jëm mu ñëw taxaw ci kanamu yàlla bi muy régler jaam bi ni yàlla sa jaam bii daanama jàng daawul tëdd guddi te jànguma mukk maa ngi lay ñaan nga rus ma ci nga dugal ko aljanna yàlla ni ko rus naa la yow alquran ndax daana la jàng loo musaana def ci ay bàkkaar rek gisatuma ko man yàlla subhaanahu wa taala demal nga dugg aljanna mbokki jullit yi kon bëgg alxuraan di jëfee la alxuraan santa santaane bokk na ci màndargay bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam amadaahu fi kitaabillahi waridatun ni'mal madi wa ni'mal madi laha fa tabaarakallahu guddi na may ñu tuuti rek ñu àggale incha allahu taala mbokki jullit yi alquran ku ci bëgg a jariñu da koy jëfe ginnaaw bi nga ko jàngee waaye ñàkk jëfe alquran nag dina waral dund gu metti mbokki jullit yi jafe-jafe yi am ci àdduna bi yépp dara waralu ko lu dul bàyyi gin fi bàyyi alquran yàlla wax na ko ci alquran nee na man arada an zikri fa inna lahu maishatan danka waaw yàlla nee na ku fi bàyyi sama wax ji di attewoo yeneen wax yu dul alquran daa dund dund gu metti te loolu gis teg nañ ci suñu bët kon buñ bëggee am jàmb buñ bëggee dund dund gu nëtëx te neex nañu dellu ci alquran mbokk yi di jëfe alquran la alquran santaane buñ ca kenn jiitu la alquran tere buñ ca kenn fekk mbokk jullit bokk na ci bëgg bëgg sunna yonent bi jëfe alquran boo mënee jàng alquran nga jàng ko boo ko mënta jàng dimbali ñuy jàng alquran ndax kiy dimbali kiy jàng alquran moo kiy jàng alquran ñooy bokk tuyaaba mbokk yi jullit yi kon nañu roy sunna boobu ci yonent bi sallallahu muy bëgg alquran ak jëfe alquran mbokk julit yi bokk na ci sunna yonent bi di woor ci weer bu ne ñetti fan loolu sunna la yonent bi sal allah sallam nee na képp koo xam ni weer bu ne di nga ci woor ñetti fan jafe nga sama sunna képp koo xam ni weer bu ne woor nga ci ñetti fan yonent bi sal allah sallam nee na dina mel ni woor nga at mi yépp mbokki julliti kon nanu nanuy woor weer bu ne nañ ci woor ñetti fan fukki fan ak ñett fukki fan ak ñeent fukki fan ak juróom nee képp koo xam ne di woor ci weer bu ne fukki fan ak ñett fukki fan ak ñeent fukki fan ak juróom yonent bi nee na ku koy def dina la bindal tuyaaba ko woor at mi yépp ba tey yonent bi sallallahu alayhi wasallam bu yowmal xiyaamee comme ni alquran ñëwee nekk avocat nit ki ba yàlla dugal ko aljana noon la koor di nekk avocat nit ki koor day ñëw ni ko yàlla kii de tere woon naa ko lekk ak naan ci bëccëg gi terewoon naa ko jaxasoog ay soxnaam ci guddi gi ci bëccëg gi dama bëggoon nga rus ma ci nga dugal ko aljanna waaw yàlla ni ko waa baax na kon rus naa la yow koor demal nga dugg aljanna mbokk jullit yi kon nañu roy sunna yonent bi sallallahu di woor ci weer wu ne ñetti fan fukk ak ñett fukk ak ñeent fukk ak juróom loolu sunna yonent bi sallallahu alayhi la mbokk jullit yi xikma bi nekk ci koor mooy ragal yàlla yàlla dafa bëgg ñu ragal ko moo tax mu sant ñu woor lan moo tax yàlla sant ñu woor xam nga nga nekk ci bëccëgu weeru koor wéet ak sa soxna te ñi moo koo teg loxo parce que da woor boo dee boroom xel am na la koor gi di jàngal koor gi mu ngi lay jàngal ni la comme que sa soxna si la lew lañu la tere ci bëccëgu weeru koor waay waay kon soxna si la léwul taxul ñuy wax nga nekk ci sa néeg yow kese nga nekk fa nekkoo fa ak kenn lekk nekk fa naan nekk fa nga ne duma lekk duma naan parce que dama wóor kon boo dee borom xel di nga ni comme que li ma dagan la ma yàlla tere kon li ma daganu taxul ñuy wax mbokku jul ci kon nanu nanu roy yonent bi sallallahu ci di woor ak di jàng alquran bokk jullit yi nañu roy yonent bi sallallahu alayhi wasallam bokk na ci sunnaam julli ci mbooloo mbokk julli ci mbooloo sunna yonent bi sallallahu alayhi wasallam yonent bi yaroon na ay saxaabaam ba kenn daawul tar julli mbooloo ku mel ni Seydina Abu Bakr Seydina Omar Seydina Ousmane Seydina Aliin ñi nga xam ne ñoom la yonent bi sallallahu alayhi yar amul kenn koo xam ni daa nga sàggane julli ci mbooloo ñun nag fan lañu ñu tey ci sunna boobu julli ci mbooloo Seydina Abu Bakar yéen ñëpp xam ngeen ko moo ak yonent bi sallallahu alayhi ku jege woon yonent bi la fu yonanti Moussa na taxaw kàbbar bu geestoo dina gis Aboubacar ci ginnaawam diiru acinu ànd yépp benn bis Seydina Aboubacar nekk ca këram dégg ñu li xaamal yonanti bi sallallahu alayhi ca jàkka ja mu daldi waaxu tànk yu dëgër ñëw ba ci jàkka ji fekk yonent bi sallallahu alayhi wasallam jëkk bi jàllagul mu ñëw kàbbar ci ginnaaw yonent bi sallallahu alayhi wasallam sant ci xolam sant na ci xolam ndax diiru li mu ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam lépp musul tardé benn rakkaa ci ginnaaw yonent bi sallallahu alayhi mu sant ci xolam moom Seydina Abu Bakar yàlla xamal na yonent bi ni ko Seydina Abu Bakar da sant na ci xolam parce que rakkaa bi rëwu ko yonent bi saa bi muy sigg ci rukoo bi mu ni sami allahu liman hamida sidna abubakar ni rabbana wa laka alhamdu loolu moo indi sami allahu liman hamida ci julli ak rabbana wa laka alhamdu yàlla xamal na yonent bi ni ko sidna abubakar sant na mu ni sami allahu liman hamida yàlla dégg na ki koy sant sidna abubakar rabbana walakal hamd loolu moo indi sami allah liman hamida ak rabbana walakal hamd ci julli mbokk yi nañu roy yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci di julli ci mbooloo julli ci jàkka yi rawatina ñaari julli muy julli gee ak fajar julli yu jafee julli ñëw na ci hadis sayduna usmaan رضي الله عنه سيدنا عثمان رضي الله عنه نين توغنا تي جوتا يونت صلى الله عليه وسلم موني من صلى العشاء في جماعه فكانما خام نصف الليل ومن صلى الصبح في جماعه فكانما قام الليل كله متفق عليه Seydina Ousmane nee na toog naa ci jotaay yonent bi sallallahu alayhi mu ni képp koo xam ne julli nga julli gee ci mbooloo ànd ak mbooloo julli gee mun yonent bi nee na ku ko def yàlla bindal la mu mel ni taxaw nga genn wàllu guddi bi di ko naafil Seydina Ousmane nee na toogaat naa ak yonent bi sallallahu alayhi wa mu ni képp koo xam ne julli nga fajar ci mbooloo yàlla bindal la tiyaaba ku naafila guddi gi ba guddi gi jeex mbokki jullit yi nañu fonk julli ci mbooloo sunna yonent bi sallallahu alayhi la bu fekkee ni bëgg nañ yonent bi nan topp sunnaam julli ci mbooloo di jóg ci fajar di julli ji ci jàkka ja dafa am ko ma wax ni ma moom mënta jóg julli fajar ndax day nelaw ma ni ko dalaa julli ji fajar dalaa ñorul bu ñu la diggoon tey deux cent mille francs quatre heures du matin trois heures du matin trois heures du matin nga yeewu toog di xaar bu la joxoon tey benn liggéey liggéey mi ngi war a commencé cinq heures du matin quatre heures dina fekk nga sangu ba toog di xaar kon julli jóg ci fajar julli fajar dalaa ñurul te nag julli gi gën a jafe nag ci naafiq mooy fajar naafiq mënu ko nanuy roy yonent bi sallallahu alayhi ci julli ci mbooloo fi may daaneele mooy yonent bi sallallahu mi ngi nii ñaax ñu ragal ko ñu ragal yàlla mbokki jullit yi nit balaa xelam a dal mu yëg ni ay jikkoom dëppoo na ak li yàlla bëgg loolu ñëpp a ci yem ragal yàlla nag moo ni may dund gu neex ci àddina ak àllaaxira lan mooy ragal yàlla mooy bàyyi xel yàlla boo nekkee ci biir nga jàpp ni am na ku lay gis sa bir ak sa bitina yam lolou moy ragal yàlla bo ragale yàlla sa dundu day neex fi ci adina ak alakhirah demal ci alquran bo demé ci alquran yàlla subhanahu wa taala nee ala inna awliya allahi la khawfun alayhim wala hum yahzanun allazina amanu wa kaanu yattaquun lahum albushra fi alxayaati dunia wa fi لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق الله العظيم يالا نينا من يالا امنا سماي غاي شيطان امنا اي غايم نوكا يالا نيان موي ساي غاي موني موي نيما راغال نيما راغال دينا نيهال سين دوندو ادنا اك سين دوندو الاخره نيت ني نك داني جاوالي نيت ني داني جاوالي دانو فون دوندو غو نيه سي علال جو بري لا نيك wala oto bu rafet wala kër gu rafet loolu njuumte la dund gu neex nekkul ci alal ju bari bëri na ku bëri alal te dundam neexul dund gu neex mi ngi ci def la la yàlla sant bàyyi la la yàlla tere boo ko defee da ngay dund aljanna sa xol day féex ku la gis foog ni yaa jeex kon ragal yàlla mooy def la yàlla sant bàyyi la lam la tere foofu la dund gu neex nekk motax yàlla ni amma man khafa maqaama rabbih jannataani yàlla ne nag képp ku ma xel ci bir ak biti mamay la ñaari aljana aljana aduna nak moy xel mu dal lu alal ji beuri beuri beuri beuri beuri sa xel delu sa du naqari na ñoo ngi ñaan yàlla subhanahu wa taala yàlla ne yàlla doon sutura guddigi damay wax ni mo gën moo gën a màgg laylatul xadri ñu ni ma lu tax ma ni parce que bu ñu bindee laylatul xadri yonte bi moo tax kon ñoo ngi ñaan yàlla barke bi nekk ci guddi gi yàlla na ko yàlla sotti ci àdduna bi di ñaanal xaaji xaamidu yorobaan mi nga xëy ni moo waral jotaay bii ñoo ngi koy ñaanal yàlla yàlla na ko yàlla dolli wér yitteem lépp mooy liggéey lislaam bi ak xadara bi yal na ko yàlla may kartan ba lépp lu mu bëgg liggéeyal xadara bi ak lislaam bi mu mottali ko yal na ko yàlla may ñaar téeméeri at yu amul ordonnance yàlla mën na ko wa ma dalika ala bi aziz maa ngi jégg lu baax ci kàddu yi di kontaane ndax bëgg ñun ñëpp moo ñu fi dajale te nit ku nekk tamit mënul ñàkk bëgg ñu ñaan rek li nga wax yàlla nañu ko yàlla may ñu dégg ko bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jëfe la nga xam ne moom la daan jëfe ñu ànd ak moom ëllëg ndax almaru maa man ahabba loolu mooy garanti bu gën a dëgër ci diggante nit ak boroomam waaye nag leneen loo bëgg lu bokkut ak bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam it buñ la boole ak loolu yaa ko bëgg kon yàlla kon ci maanduteem kon yàlla ñu yàlla musal ci bëgg loo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa bëggu ko woon kon am nañ mbégte lool ci kàddu yi nga fi wax ci ndigal rek moom la ñu wax dëgg yàlla safee lii ñu wax ci kàddu yi sell yi nga xam ne indi nga ko te it da nga lu rëy loo xam ne julli ci mbooloo la wala julli ci jëmmam ndax yàlla dafa bëgg sant moo tax sëriñ bi dafa bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax soo bëggee jëriñ sallallahu alayhi wa sallam eh, fi mu jaari xasida bi nga tudd léegi mooy sant yàlla alhamdu wa shukru wal irfaanu wa niamu mu ne lillahi subhanahu rabban lahul qidam te alhamdu googu jëmm sant googu jullit ci lay rafet mooy jëmmi julli yàlla dafa bëgg lu rafet ci nit mooy jamilu moom la moom la ñuy firee jëmmam jëmmam ju rafet ja moom borom bi tabaraka wa boo jëlee jiim 3 mim 40 yaa un 10 lam 30 da jox ñaata 83 alhamdu boo ko adadee it liif ga benn lam 30 haa un 8 mim 40 del 4 boo ko boolee mu jox la 83 kon cant gi nga xam ne yàlla namm na ko ci diggante ak ay jaamam ak jëmmam ja mooy rafetal jaamu mooy li nga wax léegi li nga wax lay dëgg rek maanaam nit àdduna jaral na ko la mu mënul ci zahir ne foog ne nelaw dax na mënul jóg fajar dem julli waaye alalu àdduna wala wala mbiru boppam nafsu tax na mu jaral ko bàyyi ay nelawam ndax topp ko oustaz li nga wax dëgg bu wér péng la nit taxaw na soirée ba 4 heures matin di fecc ñàkk tooy xepp ñibbisi lépp julli gi ba ba une heure sax fayu fayu ko sax foofu lu tax parce que loolu la bëgg kon pour dëggal li nga wax kooku boo ko nee buñ ko joxee nangam wax dëgg yàlla wax nga ko dëgg kon loolu lépp kon luñ ciy jàng mooy xeex bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon ci jamono kenn ku nekk na jéem a xeex noonam ba nga xam ne jege na ko lool ginaaw bu ñu ñibbisee ci xare bu metti ñu ne ko ban noon mu ne nafsu sa bakkan eh, jihaatu nafs xeexak sa bakkan kon bari na loo xam ne nit mu koy daj ci dundam oustaz yaakaar na bakkan noot na ko ci kon nañu moytu an nafsu nañu a al sheytaan nañu moytu al hawa nañu moytu ad dunia ndax yii nii mooy tënk nit ci xañ ko ki nga xam ne mooy borom bi tabaraka wa taala ci ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah lii moo fi nekk sa bakkan boo feebalee ba seede bi nga war a seede yow wax ashhadu an la ilaha illa allah yow ba nga koy seede kon xanaa kon teewla woo ko sa ruux yaa wax ashhadu maa ngi seede yaa ko seedeel sa bopp comme que nag yaa nangu ba nga ne diine bi diine seedeel sa bopp ci sa làmmiñu bopp première buntu kon sa seede gi nga seede ne amul kenn ku ñu war a jaamu ci yàlla kon fan la ci yow waaw ashhadu laa wax xam nga seede gi mooy ashhadu an laa ilaha illallah man seede naa ne amul kenn ku ñu war a jaamu ci dëgg ku yàlla yaa ko seede ndax yàlla moo ne benn la ci ponk islam bi ndax juróom yi képp ku ko deewaalewul deewoo ci islam yàlla moo ko tabaxee ci juróom أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله إقام الصلاة إيتاء الزكاة الصوم رمضان الحج البيت لمن استطاع إلى ذلك سبيلا كم نكو خمي كون جرمي بن بوتي سجن بودي ودي وشي دين ويا خم تلو دي لالا موتا سيدك كون دفو ورى وير باتو نشهد أك أشهد بكل نشهد دنا أم دنا دوغو تي نيب نيغي سيد نيب واي اشهد يولا seede bi ngay wéet nag yaag sa diggante sa borom nga ne ashhadu man maa ngi seede ni man sama jëmm sama diggante sama borom fal la ci sa jëmm waaw kon seede googu kon da ko la koy accompagner mooy jëf yow kott ak sa borom tabaraka wa mooy jaamu yàlla gi gën a la lekkul jaamu yàlla loolu la oustaz doon jàngale jërëjëf ci mboolem jaamu yàlla yi nag itaa i zakat am na ñoo xam ne boole wu ñu asakal ci seeni i dund te pourtant mooy sellal sa alal moy tax tamit sa ruhu tamit féex sa diggante sa borom nga meuna fi waye lo am ci alal bo taxawul asagal yaangi do doo nekkoo ci jam te nak amana sax do am jam kon woo weeru koor tamit naka nonu comme fu ustaas jaré tamit deug bu weer péng la nit war na ci jàng ragal yàlla te lolu mo tax yàlla indi ci ñun koor kutiba alaykum siyam kama kutiba ala lazina min qablikum laallakum tattaqun ko ragal yàlla gogul yàlla nam ci ñun lu wér nga wax même aji màkka da ngay wuyu ji sa borom ci woote gi nga xam ne dafa ne farata ci yow yow mii mën ko benn yoon ci sa dund kon boo ko amee mën ko demuloo kon bu ëllëgee di nga am waxtaan sa dégg lan moo tax demuloo moo tax boo demee kon lay wax labbayka allahumma labbayka lu tax parce que moom moo la woo parce que mën nga te farata la ci yow boo demul tamit wàccu la ndax loolu lañ ko jàngale farata la ci yow benn yoon ci sa dund boo demee benn yoon nag wàcc na la waaye nag boo mënul tamit boo demee tamit leneen la boo mënul dem aji màkk boo demee yàlla woowu la yàlla ku mu woo mooy ku ko attan mën ko te mu war la waaye nag sàmmanteeg ak yi la warul moo li yàlla dem màkk te bàyyi fi ak yoo xam ne war na la xam nag ba xam wax ni noonu la noonu la jaar jaar na yoonam déet sàmmanteeg ak yi la war ci àdduna eh, uti uti uti turu alaaji neex na nga dem aji màkk ñu ne la ñeent fukki fan yi loo ñaan yàlla yàlla nangu am na loolu yëpp ay yërmande yàlla la ak ñeewantal gi yàlla bëgg seetu sallallahu alayhi wasallam ñëpp kenn bañ a am benn défaite ak déception digganteem ak jëmm boromam pour liggéey boo liggéey nga bañ am yaakaar ne yàlla nangu ko ay alxajju arafa boo déggee mu la boo taxawee arafa daanaka loolu mooy aj loolu yëpp pour nga bañ a am benn benn sikki sàkk ndax nangu ne wala nanguwul waaye jëf ja ci la bokk yàlla wax fayul wax fayul ay ay ay ay tappale déedéet yàlla la muy fay mooy jëf ju sell te jëf it am fu mu sëf jëf mu ngi sëfu ci yéene yéene gi falee jëf di selle inna tamaama kullu amalin bi husni niya jëf boo mënti jëf munul sell fekk sa yéene sellul waaye nag fa ngay déparé di dem aji màkk nga la waay bu dee yedd nga sa bopp ne man mii kat man mii kat sàmmonte naa sàmmoonte naa sàmmoonte naa sàmmonte ak yi nga xam ne tey ak yi nga xam ne tey moo ma wër moo ma war ci lii may dem nga la waay dellul dellul dellul si ginnaaw nga sàmmonteeg ak yooyu moo gënal yàlla dem aji màkk si ginaaw boo ñibbisee ak yi di a tar si kon yàlla kon woowu la kon yaa dem kon moytul balaa nga bokk ci ñu yàlla wax ne laa labbayka wala waaw kon labbayka allahumma labbayka boo ko waxee li la ci na ma mooy lan mooy yàlla ne la kon sama jaam bi kat kontaan naa ci wuyu gi ndax man maa la woo ca njëlbeen yàlla wërsëgal na la ñëw nga kon alhamdulillah kon nga xool la sharika laka waaw la sharika laka ha kon fa tabarakallahu ñu ngi may wax ne na na yéen nit ñi ci ci ay xasida waaye li am solo mooy kontaan rek ci ci oustaz li mu wàccee fii dafa rëy ci xasida bu tedd bi nga xam ne sëriñ bi moom moo ko taalif yoon ci àll muhammad sallallahu alayhi wa sallam Eh, ñun ñun dañuy dañuy pookare woo téere bi dañ koy ndamoo ndax ndam islam amati na ndam fu mag ñi jaar rek la jaar yàlla na ko yàlla fay waaw ñun lii moo ñu orienté ñun lii moo ñuy defar lii moo ñuy dimbali ndax xasida bi nga xam ne tey jii ni def na ko lépp njàngale la na deful lenn loo xam ne pour pookare adduna la déedéet lu mu fi def njàngale la mu ngi wax ci biir téere wa kayfa yastamruun fii qalbihi ahmadun naka lay texee dee koo xam ne xolam ahmad mu ngi ci dama ubbi rek yam ci من وكيف يستمرون في قلبه احمد نقل لي تخيد كو خامني احمد خول ماغي مام شيرنا مكو احمد موي كان موي سيدنا محمد سا خول نيك سي سيدنا محمد nga بوجو يو لاك غاي تخيد كو نغاي تخي رك دنگ من وكيف يسعد من في قلبه صنم نقل لي تخي كو خامني خولم خرم ماغي خرم مام شيرنا مكو واخ نقل لي نقل كو خامني خولم خرم ماغي ñu ne Ceerno xërëm boobu mooy lan ban xërëm mooy nekk ci xol mu ne asnaamu azmanina hubbul mataa'i wa ah waa'un wa maalun wa jaahun ghibbuhu nadam dégg nga xërëm bi Ceerno nee na asnaamu na xërëm yi nga xam ne ñoom ñooy dox ci suñuy jamono xërëm yi ñu gis ne jaamu yàlla ñu ngi leen di jaamu ci jamono ji mu ngi cité te boo xoolee dëgg bu wér la lii tere na li ñi jaamu yàlla comme il faut tere nañ leen ñu jëf-jëf bi nga xam ne war nañ ko liggéey si diine islam comme il faut tere nañ leen ñu tamit dund ci yàlla comme dund bi nga xam ne moo ñu war ñun jullit comme ni yàlla nammee ñun jullit ñu nekk benn lii mu xërëm yii moom moo ñu ko teree dund ci suñuy xol lu am solo la ceen wax ah mu ne asnaamu asnaani naa hubbul mataayi bi jiitu mooy bëgg matériel matériel téléphone bi jaral lu ne sacrifié sa dund yow mi xale bu jigéen bi nga baal ma am ku la woon benn iPhone nangam mu jafe la sa dund foogoo woon ne lii mën nga koo am jomb na la mu nax la nax la nax la ba yàq sa àddina ci lu ñàkk fayda loo xam ne sa li nga pet ci moom mënoo koo dab mukk ci sa àdduna mu ngi ci àdduna kon xubul mataa yi tere na nit egg ci yàlla ngir matériel jël bakkanu doomu aadama ngir ay immeuble wala ay 4x4 nga xam yaa ngi koy daw te bu la yàlla nattoo ba nga dugg ci yàlla dalay damm ay bànneex yoo xam ne tey moom moo tàng sacrifié ko bëri na koo xam ne sacrifié nga jël nga bakkan doomu aadama te yàlla du ko jéggale mukk ku faat nit te tey ko yàlla du ko baal man qatala muminan mutaamidan fa jazaohu jahannam ku rey julli te tey ko sa pay mooy jahannama te fii ngay déparé nag bëri na koo xam ne du wér mukk la nga jëndee doo jëndee bakkan doomu aadama boobu la yàlla faye yaa ngi ca lal ba li nga alal bi mu ngi la wër te mënoo ci am benn bànneex lu tax parce que yàlla nga tooñ sa pay la la yàlla fay kon pour wax la ni na lu mu wax ci téere bi yëpp xaqiiqa la te it sharia la te lu wér peng la lépp alquran la kon pour wax la ni muy benn hubbul mataay beneen bi wa ahwa un waaw xoolal mbokk yi kenn ku nekk mu ngi xool intérêt bëgg-bëggam topp sa bëgg-bëgg sa intérêt personnel ba tax na li yàlla bëgg da nga koy sàgganee da nga koy caaxaanee da nga koy foowee pour lan mais bu dee dëgg nga bu dee dëgg la jullit nga bu ñu kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni ga nga nga xam ne moom la ñu jàngale ci ci ci jar ga sallallahu alayhi wa sallam wala bu dee dëgg la yàlla nga bëgg wa rasuluhu allahu wa rasuluhu ahaqu an yurduhu in kaanu muminin kon yàlla ak yonent ñoo gën a yelloo nga bëgg leen kon looy bëgg sa bëgg-bëgg bopp na ko fa ñukk bëgg la yàlla bëgg bëgg rasulullah saa salaam bëgg bu ko defee nga dugg ci sécurité waaye boo leen bëggul yaa ngi ci erreur wa maalul alal ga mbokk yi alal gi alal fan la ñu teg alal ndax boo deewee dana lay topp fi nga teg alal ndax boo deewee ndax wóor na la sa njaboot gi lay donn ndax dinañ jub ci alal ga lu la jaral ci alal ndax wóor na la bu ëllëgee di nga ci tedd ndax du la du la xañ sa diggante ak sa borom ci jaamu yàlla alal loolu lay def ci nit innama amwaalukum wa awlaadukum waaw fitina boobu da nga ko war a daw wala da nga ko war a bëgg fitina loo koy doyee waaye nag boo koy téyee tamit yàlla nee na la an amta alayhim gayril maghdubi alayhim wala daalin kon yaral foofu yarul foofu foofu nga war a yaroo jullit ci sa alal kon wa jaahun mbokk yi adduna bi ku nekk mu ngi woote pour ni am mbooloo mbooloo mbooloo am bës nit ñi naan yow a yow a yow a ay ñu topp sa ginnaaw Thierno nee na am na ñoo xam ne loolu rek moo lay intéressé ci àdduna wa jaahun topp leen ma rek kaa leen topp sama ginnaaw ñu lay ñu lay wax say maam te amul kenn koo xam ne gis nga ci moom fees na dell ci yàlla amul kon mbooloo yooyu wala woote yooyu pour bëgg am mbooloo cero nee na loolu baaxul nee na yii yëpp ribuhu nadam rëccu rek moo lay jur la jur ëllëg yii yëpp ribuhu nadam gis koo xam ne képp koo xam ne yàlla dogal ne lii nii nga jiital ko ci sa dund bu ëllëgee rëccu rek يلا يلا فيا سيرين وصلي على الهدي ومن سلك نجل الهداية يا رمان يا هكام والنئام لله سبحانه رابا له القدام تقدست ذاته كذاك أسماؤها له المامد في الدارين والعزام الحمد والشكر والإرفاق والنعم لله سبحانه رب القدم ويا خالقنا أن يكون له أبدا للدون ولا خصيم الحمد والشكر والإرفان والنعم لله سبحانه رب له القدم ثم صلاة على خير البرية من تشرفت بهداه العرب والعجم الحمد والشكر والإرفان والنعم لله سبحانه رب القدم الأكوان والأمم الحمد والشكر والإرفان والنعم لله سبحانه رب القدم فكان مولد للخلق مكرمة وبذل عليها الأكوان والأمم الحمد والشكر والإرفان والنعم لله سبحانه رب له القدم وذا شهر الربيع الذي بنور انكشفت عن دهرنا ظلما الحمد والشكر والإرفان والنعم لله سبحانه رب له القدم وجاءت به شيمك الحمد والشكر والإرفان والنعم لله سبحانه رب القدم ودام شهر ربيع فرات ختمت بالنبوة والإحسان والقيم الحمد والشكر والإرفان والنعم لله سبحانه رب القدم وقد تمنت شهور العام الذي بما ربيع كله نعم الحمد والشكر والإرفان والنعم لله سبحانه رب القدم ميلاد خير الورى روحا وأبئدة ففروا يا أيها الناس الحمد والشكر والإرفان والنعم لله سبحانه رب له القدم وقد تمنت زهور العام الذي بما ربي عن كل نعمك الحمد والشكر والإرفان والنعم لله سبحانه رب القدم الأمر يا أيها الناس الحمد والشكر والإرمان والآل الله سبحانه رب الخلق إن سعادة فيه يا مولده فأيه بالتقى والذكر تغتنم الحمد والشكر والإربال والآل الله سبحان ربنا له شرنا إن سعادة في إحياء مولده فأهيه بالتقى والذكر تغتنم والشكر والإرمان والنعم لله سبحانه ربنا غلق شنن لله دو شر أناس عزمه إلى أن ارتقوا للعلا والبشر ترتسم الحمد والشكر والإربان والنعم آه، لله سبحانه رب الخلق شرنا فهو السخي الذي نوال رغد وهو النبي الذي أهواله كرم الحمد والشكر والإرمان والنعم آه، لله سبحانه ربنا شرنا وقوله لين وفعل حسن من اقتدى بهما لا شك يستقيم الحمد والشكر وال والإرمان النعم آه، لله سبحانه ربنا لك شرنا وقله لين وفعل حسن من اقتدى بهما لا شك يستقيم الحمد والشكر والإرفان والنعم لله سبحانه رب له القيد شرن وقوله لين وفعله حسن من اقتدى بهما لا معك يستقيم الحمد والشكر والعرفان والنعم لله سبحانه رب له القيد شرنني ونهج سنة للمهتدين فمن رام الأولى بالهدى يسأل ويعتزم مصطفى والشكر والله إرفان واليوم شرن لله سبحانه ربا تنتبي دفلني الخي الحمد والشكر إرفان والنعم شرن لله سبحانه ربا له القدم شرن الحمد والشكر والواو الفان والنعم شرن لله سبحانه رب له القدم مصطفى ونهج سنة للمهتدين فمن رام الهدى بالهدى يسعى ويعتزم شرن الحمد لله شكر والعرفان ونعم لله سبحانه رب له القدم شرنني والنهج سنة للمهتدين فمن رام العلا بالهدى يسعى ويعتزم مصطفى وصليا يا إلهي وجزيا آه. أبدا أن محمد مختار في لقي شرمني هو الأمين الذي أدى الأمانة في تبليغ عن ربه والجمع إيمان والشكر والإرفان والنعم لله سبحانه رب الخلق شرنا لك ندعم نتور رمضان حسن بنعمته وكان في أمره بسير يتسم الحمد والشكر والإرفان والنعم لله سبحانه رب الخلق شر والأقوى في قوله وبلا صديق ومن بالحق يأتسم الحمد والشكر والإرفان والنعم لله سبحانه رب الخلق شرنا ونعم الماده لها كم الحمد والشكر والإرفان والنعم لله سبحانه رب له القيد شرنا فقال خالقنا وإنه لألا كما أتنا بها آخر آية القلم الحمد والشكر والإرفان والنعم لله سبحانه رب القدم جرنا إلا صلاة على المختار سيدنا تقبلهم بها الشكر والإرفان والنعم لله سبحانه رب له القدم صلى الإله صلاة لا مثيل لها على النبي الهدى ملواه مختتم الحمد والشكر والإرضان والنعم لله سبحانه رب الخلق شرنا صلى الإله

صلاة لا مثيل لها على النبي الهدى ملواه مختتم الحمد والشكر والإرفان والنعم لله سبحانه رب له القيد شرنا وكتب لنا رحمة دنيا وآخرة بعبدك المصطفى والفعل سجيم الحمد والشكر والإرفان والنعم لله سبحانه رب الخلق شرنني وقد أسيتك في سر وفي آلان إلا غفرت فقد زلت بي القدم الحمد والشكر والإرفان والنعم لله سبحانه رب القيد شرنني ولست أرجو غدا إلا شفاءته فارحم به عجزا lizan bi mojtarimu giɗo mantu taskoye laaɓe diine en joomam mi yettiima kala jewoteeɗo woodaani mbowanaaka sabu woddema ina laaɓi jilɓaaniketɗelɗo wodde joomum yo ƴewto hoore muɗumowoɗirɗo to woddemakko ene humni man kaani kisale e yurmende ɗiɗi duumiɗi ɓuuɓiyongoli الحمد لله بريت جامع برجرا النبي أقر درة الحمد لله بريت جامع برجرا النبي أقر درة الحمد لله mbir jara annabi o ɓurɗo windere alhamdulillahi mbaɗa yetta joomam mbaɗa jara annabi o ɓurɗo ya rasulu ndemeɗi komi suko nder galle ceernam yetta nay mbere jànga def tere alhamdulillah mbere yetta joomam mbere jaara annabi obrawi ndere ndemidi komi suko nder galle ceernam yottaki je nayi mbere jànga def tere alhamdulillah mbere yetta joomam mbere jaara annabi obrawi ndere komi suko nder galle ceernam yottaki jeenayi nder janga deftere alhamdulillahi mbeɗa yetta e joomam mbeɗa jara e annabe o ɓurɗo windere mi suwannano annabi hay goto dañata adunaru kun amami yawma alqiyami يوم أيا إمامي أيا زمامي فكن أمامي يوم القيام أيا إمامي أيا زمامي فكن أمامي يوم القيام أتاوي لقد دعاني لما دهاني جاني شقوا تجاني شقوا القرامي أيا مامي أيا مامي فإن أنامي كما فتاوي أيا إمامي أيا زمامي فكن أمامي يوم القيام أيا زمامي أيا زمامي فقل أماني يوم القيام جود من دول قد آمي ما دهاني شق تجاني شق الكرام أي إمامي أي إمامي فهو الأناني يوم القيامة أتاوي لقد دهاني لما دهاني شق تجاني شق الكرام أي إمامي أي إمامي فهو الأناني يوم القيامة أتاوي لقد دهاني لما دهاني شق الكرام شق الكرام يا إمامي يا زمامي فوق الغنام يوم القيامة فتاوي هديت نفسي دايت ناسي أو أنا ما ماذا تآمي يا إمامي يا زمامي فوق الغنام يوم القيامة فتاوي هديت نفسي مزات آمي يا إمامي فيا زمامي فقل أنامي يوم القيامة شعر نقطاوي هيا شبابي المن بيابي ولو ببابي ربي تشفي غرامي يا إمامي أيا زمامي فوق الأنام يوم القيامة أتاوي أيا شبابي المن إيابي ولو ببابي تشفي غرامي يا إمامي أيا زمامي فوق الأنام يوم القيامة شير نقطاوي بدا بفودي وأم خالي حدي بخير حدي بيدنا آمين يا إمامي يا زمامي فقل غنامي يوم القيامة أتاوي بلال في زايد نازي أو أنا راسي ما زات آمين يا زمامي يا زمامي فقل غنامي يوم القيامة أتاوي بدا بفودي وأما حدي بغير حدي الحاجي بيدنا آمين أيا إمامي أيا زمامي فوز الأماني يوم القيامة أتاوي بدا بفودي وأما هادي بغير هادي بيدنا آمين أيا إمامي أيا فوز الأباني يوم القيامة أتاوي يا ليت شيري حلم النسيري نسيري على النزير لدى اقتهامي أيا إمامي أيا زمامي فوز الأباني يوم القيامة أتاوي يا ليت شيري قال من نسيري على النزير لدى اقتحامي أيا إمامي أيا زمامي فوز الأمام يوم القيامة أتاوي بهم أصول بهم أجول بهم أصول زر سنامي أيا إمامي أيا زمامي فوز الأمام يوم القيامة غاوي أيا إمامي أيا زمامي فكن أمامي يوم القيام أيا إمامي أيا زمامي فكن أمامي يوم القيام شو تيجان من جاري كوي شيخو تيجان من جاري كوي شيخونا تيجان من جاري كوي شيخونا تيجان من جاري كوي شيخونا تيجان من جاري كوي شيخو تيجان من جاري كوي 嗯。 لا إله إلا الله قد كان لكم آيات في فئتين اتقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة ترونهم مثليهم راي العين والله يؤيد بنصره من يساء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار غين للناس حب الصهوات من النساء والبنين والقنادر المقندرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المعاب قل نبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مدهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسهر شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريء الحساب صدق الله العظيم حمدت الله ربي إذ هداني إلى نظم القصيدة في تجاه شرنا لنا صلاة الله قادر كل شيء على خير ولا جدي تجاني حمدت الله ربي إذ هداني شرنا لنا إلى خير القصيدة في في تجاه شرنا صلاة الله إبادر كل شيء على خير الورى جدي تجاني حميد الله ربي إذ هداني إلى نزم القصيدة في تجاه شرن لنا وردوان من الرحمن ربي بلا صغر يلي علي تجاني حميت الله ربي ازهداني إلى نزم القصيدة في تجاه شرن لنا والخلفاء الأبرار ضران ومن أقفى بأ تجاني حميت الله ربي إذ هداني إلى نظم القصيدة في تجاني شرنا لهم في ورده شرف عظيم فيا بشرى لأتباع تجاني حمدت الله ربي إذ هداني إلى لازم الأذكار حينا مع الإخلاص في ربي جاني حمدت الله ربي زهداني إلى نظم القصيدة في تجاني كمن يهيط بي من الرحمن يسر بجاه شيخ أمدنا تجاني حمدت الله ربي إذ هداني إلى نظم القصيدة في تجاري شرنين وأركان طريقتي يا مريد إذا أهدى مدنا تجاني قبلت الله ربي ربي إذ هداني والله إلى نظم القصيدة بي شرنا لنا وأركان طريقتي يا مريد إذا أهات أمدنا تجاني حمدت الله ربي إذ هداني ما والله إلا نظم القبيدة في شرنا هي استغفار ذنب مع صلاة على المقتار في نهجي تجاني حمدت الله ربي إذ هداني ووالله إلى نظم القصيدة شرنين هي استغفار ذنب مع صلاة على المقدار في نجي تجاني حمدت الله ربي إذ هداني إلى نظم القصيدة في تجاه شمنين ويلتين يزينها خشوعا مع تفكير يا أهل تجاني حمدت الله ربي إذ هداني ووالله إلى نظم القبيدة بي شرنين وكشروطها في كل ناد فلازمها لترقى بتجاني حمدت الله ربي إذ هداني إلى نظم القرآن القصيدة في تجاه جنن صلاة الفرد في الأوقات شرطا يدوم بلا انقضاء في تجاني ووالله إلى نظم القصيدة بك جنن بلا خلق ولا إشراك غير فلا شيخ يقارن بتجاني أمنت الله ربي إذ هداني فوالله إلى نظم القصيدة بي شرنا ليلة ولا تخصص لغير بالسيارة فإن الفضل في وردي تجاني حميد الله ربي إذ ووالله إلى نظم القصيدة في تجاه شرنا ليلة ودم بتلاوة القرآن بي ما التقوى كما أمرت جاني حميد الله ربي إذ هناني إلى نظم القصيدة في شرن ولا من باب في كل نال يمدك من مكارم تجاني حميد الله ربي إذ إلى نظم القصيدة في تجاني ولازم بابه في كل حال يمدك من مكارمه تجاني حمدت الله ربي إذ هداني والله إلى نظم القيد شرنا ليلة ضمانات ويسر وارتقاء لأهل ذكر أبابي تجاني أمدت الله ربي إذ هداني إلى نظمي قليل نبي شرنا ليلة دخول الجنة العليا جميعا مع المختار وشيخي تجاني حمدت الله ربي إذ هداني ووالله إلى نظم القصيدة تجاني شرنا لي بلا سبق الحساب ولا إتاب بفضل الغوث آمدنا تجاني حمد الله ربي إذ هداني ووالله إلى نظم القريدة بي نعم شرنني ما الآباء والأبناء ما لم يكن البعد للقرب تجاني حمدت الله ربي إذ هداني ووالله إلى نظم القصيدة في تجاني جرنالي ويدر في مماتهم رسوله برفقة زبدي شيخي تجاني حميد الله ربي ازهدا ووالله الى نظم قصيدة في شرنا مقابر رياض من جنان بجاه شيخ مولانا تجاني حميد الله ربي ازهدا ووالله الى نظم قصيدة في شرنا وتعرف في وجوه القوم نورا لما لزم إمام الورد تجاني حمدت الله ربي إذ هداني ووالله إلى نظم القذيدة في تجاني شنني ألا فانظر إلى هلق الرجال يفوق بذكرهم سكوت تجاني حمدت الله ربي ربي إذ هداني والله إلى نظم القريدة فيك جرنني وسيماهم بمزهرهم بياد بنور الغوص ملجئنا تجاني حمدت الله ربي إذ هداني والله إلى نظم القصيدة في تجاني سيدنا عبد الله محمد صلى الله عليه وسلم عندي بني ربي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته هنا يا كونتينينا جنا بني سنتي يلا جلت يونت بي صلى الله عليه وسلم نيوح مولو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ne ñu ci jital suñuy wayjur سنو كاليفا سنو خليفة شيرنا حميد يا ربان يتي الله نو الله وجرا نين هاندي ودو جامني نينا سانت نيني يالا بيغا خامني ني سنو بوروم نكالا دوخالي غودي غي ني مو مل بانيرا بي فوم بيلتيم نينا موك ييب كونتان ني الحمد لله رب العالمين وانكو هبا نينا الحمد لله رب العالمين امن لي ني ام nee lii ñu am yàlla nañu ko yàlla téyel boppam bi jaay rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam nee na bu loolu wee e ci làmmiñu suñu sëriñ ceerno hamidu bun atuman nee na mbokk yëpp ñu ngi ñu ngi sant yàlla di leen gërëm heewi nodduɗo waasi nootede neena barina ko woote ñu bañ ko wuyu heewi nodduɗo kadi taw wona allah noddi ne barina ko woote te wootele ci allah ene noon alhamdulillahi rabbil alamina en noddama e allah en nootima allah ñin nak alhamdulillahi rabbil alamina wo nañu ci allah wuyu nañu itti allah ɗum noon ceerno wi bandiraɓe e allah jarama ɓe jarama moo tax ceerno ne mbokk yi ñu ngi santi allah bu baax di leen gërëm nag yimbe legal be neena nit ñi nek ci quartier bi koddiiɓe be dëkkandoo yi bandirabe mbokk yi musibe be ne am di jamm yi kambe fu be ngari be no ci sima ñom ñep ñew nañu wuyu ci ɗum noon kamɓe ne ceerno ne wiyaɓe allah jaarama be jaaram ne ñomit it ceerno mu leen di wax ne ñi ngi sant yalla bu baax di leen gërëm ewa banndiraaɓe ngannduɗaa ewa ɓaliɓe ɓe fof ngari ne mbok yi nga xam ne ñu jege lañu ñoom ñëpp ñëw nañu saa lim tiitana ne boo limee rek da ngay jum kono noon ne waye nag waasata woote hen ko limɗe du ñàkk mu am luñ ci lim ewa ceerno abdoulaye seen en ne ku melni ni ceerno abdoulaye seen ceerno kaalidou so en ñoom ceerno kaalidou so ceerno uh, wan en ñoom ceerno wan kamɓe fof ɓe ngari ceerno mouhamadou wan ceerno mouhamadou wan kamɓe fof ɓe ngari ñoom ñëpp ñëw niñu rendire ceerno ñu ànd ak sëriñ bi rendire men enen fof ànd ak ñun ñëpp jamma o guddi gi ɓesngu galle njabootu kër gi ɗuggi koye jinnaaɓe rewɓe lu to lu tàmbaleeg ci soxna yi jigéen ñi haa ɓesngu ngu ne ba ci njaboot gi moni fof darima ñoom ñëpp taxaw nañ kamɓe pop ñoom ñëpp allah yi golle yàlla gis na seeni jëf allah jaarama ɓe jaarama ne ñu ngi sant yàlla bu baax di leen gërëm enen noon nag enen arɓeɗo ɓe ñun ñi ñëw fii yëpp e ceerno wi allah jarama en jarama ɓe ñi ceerno wax ciñi ceerno de jaajëfal enene fof ñun ñëpp dellu nañu en mbimo ñu delloo ñu wax ne ceerno ñu ngi sant yàlla bu baax di la gërëm ko keɓɗen ɗo ko ne am moom mooy sabab bi so wonano kanko ne bu nekkul woon moom lii du am ne bërëb بين توك شيموم برب بي ان شاء الله تعالى ان شاء الله تعالى جانغو يوم القيامه الله يوم القيامه وجيتي كوي نوكوجي داي بوكو اي اي برب جيتو دي الله هي سانت يالا او دو نوكو نانا برب بي جانغو يوم القيامه الله يوم القيامه وجيتي داي بوكو كوي كوي نوكوجي شي برب بي دي تشيرنو يي يو الله يبه يالنا لا يالا فاي ko kalmi ɗo ko nee na nag lii mu fi wax kalmi ko gandal moom xam-xam la wax kono noon nee waaye nag andi fof xam lépp haali fof wax lépp kam bonni fof yaa yàq lépp kono ko allah andi ko waaye li yàlla xam e julɓe ko julɓe wonnoɓe ɗo ɓe ko gandi ko ak jullit ñi fi nekkoon te li fi nekk te xam ko ɗum yoni seede loolu doy na seede ɗum noon ceerno nee na nag kon sëriñ bi. mi ñaagoto noon li ñuy ñaan rek. ko yo allah juutno nguurdam ma mooy yal na yàlla yàggal sa dund amin du wonaade ceerno noon nee ñaanal sëriñ bi nag ko du wonaade koye men mooy ñaanal suñuy bopp neɗɗo no wuura nee nit dina dund duuɓi teemedere téeméeri at taw ko maayɗo fekk dafa dee taw o wuuraani te dundul omo yaha mu ngi dox omo ñaama mu ngi omo yara mu naan omo resa mu ngi am ay soxna omo jibina mu ngi am njaboot kono to allah waaye fa yàlla o wuraani dundul to allah fa yàlla o wuraani dundul fittaandu makko ndu ne ruuham ba fittaandu ndu ruugi bakkan bi eh, eh, voilà bakkan bakkan makko <laughs> ne bakkanam bi kala ko yiɗi gollindemo ne lum ko bugga liggéeyloo gollinamo ne daf koy liggéeyloo o wuura heen ne mo dunduci haw maaya deeci fekk foofu la nekk ceerno noon alhamdulillahi rabbil alamin neena nag sëriñ bi nag alhamdulillahi rabbil alamin o jaɓata du nangude gonda e makko nga nekk moom taw ko to allah to fa yàlla taw ka mayɗo toon fekk dangaa dee fa yàlla o jaɓata ɗum moom du nangu loolu ko allah noon rokkirimo noon yàlla nag moo ko mayee noonu allah moo yore ngëneelam mu o rokkata kum ko neex la koy jox ko sabu ɗum ne sabab boobu o nodda yimɓe moo tax mi woo nit ñi e ɗiɗo jammaji ci guddi yi mel nii ngaren ñu ñëw nden nden enen ñun ñëpp ñu ànd ndewen allah ñu jaamu yàlla waɗi ɗen wadde ko kamil alqur'ana ne li ñu njëkk def may wàccee fii jàng fi kaamil alqur'an sa jàngi harfu gooto boo jàngee benn araf e alqur'ana ci alqur'an bindanteɗa ko baraji sappo neñi bindal le fukki yiw sa jangi harfu goɗɗo bo jange beñen araf ko harfu ko ko binda ko ko baraji sappo nga am fukki yiw ha gasa ba ba kerok muy jeex gummiɗen ɗon neñu jige foof ha ɗen astahfirullah ñi dem ci astahfirullah ɗum ko ngannduɗa ne li nga xam ne moom mooy sauvetage hakkunde neɗɗo diggante nit e allah ak i allah kala bakkar mo boo def sa ruttima e boo delloo ci yàlla totirɗa e allah nga delloo ci yàlla ko astahfirullah astahfirullah ngay delloo en mbaɗi ɗum ne def nga loolu en mbaɗi salatu ala nabi ñu def salatu ala nabi ak yeneeni liggéey enen kay nee ñun nag ko enen mbiyata ceerno ñun ñooy wax ceerno allah jaarama a jaarama ñu ngi sant ñu koy sant di ko gërëm yo allah juutnu balɗe ma nee ñaan yàlla fan wu gudd kala ko allah rokkuma e neema nee lépp lu ko yàlla may ci xéewal yo allah ɓeydu yàlla ko yàlla dolli ndeen kay kisal mu def ci kaaraange ak bijaahi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fa tabarakallahu bijaahi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam enen kay en mbi alhamdulillahi rabbil alamin nee ñun nag li ñu wax rek mooy alhamdulillahi rabbil alamin bandiraɓe noon nee na mbokk yi nag so wonaa ko jejjin mi haalde bu nekkul lu mu fàttee wax kala mantore ne bépp tag kala jaarore bépp tag bi nga xamne kala tinal wala yek yek cierno tini won cierno yek na len ko o manti won dum ne na len ko jaarni won dum ne tagge na len ko ko min nelaɗo jaajëfal na leen ko it moom moom lañ koy yónni min won mi waawa nirde moom mooy ki nga xam ne munu koo matale no nelirimi ni ni mu ko koy yónni mbaɗmi heen tan lu mu ciy def rek mooy fodde kattanam min lu tolloo kattanam ɗum noon ne kon nag allah jaarama en jaarama ñu ngi sant yàlla ceerno jaarama nde di di gërëm ceerno ngandeen noon ne ñu xam nag ko jooni den ne léegi la ñu tàmbali ko jooni den léegi nag la ñu tàmbali ne nee na sànq hayso so tawi ne même donte sax ruuhu makko ne ruuham ba nee reeni sàmmoon nañ ene rewta di ànd ak ñun ci jaamu yàlla jooni noon ne léegi nag ba jimme ak jëmmam ba arina wonde men ɗo lépp ñëw na ànd ak ñun ene rewta men di ànd ak ñun ci jaamu yàlla gi kala ko gooto meɗen tinninoo ne lu waay góorgóorlu woon tin eh, eh, ci teewlu e dewal mum ci jaamu yàllam ga yo tinno no góorgóorlu itta gonɗi mum dindi ay ay gommintom waɗa himme mum def yittem huccirene makko jakkarlok moom kala allahumma mo weeni en ne ɓeppo allahumma bimi ñu waxal inchallahu taala inchallahu taala min jiiɗu gite meɗen dinañ ko gisal suñuy bët so ɗum ɓenni ha joni ko ɓeydaade yettude allah tan ne bu loolu weye bu loolu jalle tamit ba tey dañuy weye rek di yokku sant yàlla e ci woote ɗi ceerno heewi yi nga xam ne ceerno bëri na woote gi nga xam ne dañuy woo woo woote yu mel noonu noddat tan ko allah dafay woote rek ngir yàlla noddata ko nelaɗo allah sallallahu alayhi wa sallam woote ngir rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ɗum ne loolu rek lay wootee ko allah waddi ne li boole ak moom bis bu wootee ci lii la ñuy woo te mbokk yépp tamit seede nañu ci loolu léegi ba tey nag inchaa allahu bu neexee yàlla suñu borom journée yi nga xam ne moom lañ daan def fii ganduɗa ko corona o dartinno ɗum ne nga xam ne li corona bi ñëw moo taxoon ñu arrêté ko inchallahu ne inchallahu taala e mois de novembre bi o ci mois de novembre bii ñu jëm le 11 le 12 ak le 13 dañuy ñëwaat ñu wuyu ngir yàlla ak ki woote ngir jëmmi yàlla bu neexee yàlla ne mois de novembre bi comme niñ ko waxee le 11 lay tàmbali ah, ba le 13 ni rek la alquran tan alquran rek la jaamu yàlla ne ne ñetti fan yëpp ne kon fo waawi manti nekk e kala ɗo musidɗo ma ak fusa mbokk sa mën manti nekk yiɗanmo yéene koko hono ko ceerno yiɗani en ko comme luñu sérigne bi yéene noddamo nga woo ko o ara o nooto mu ñëw mu wuyusi e ci woote gi yàlla bi wasata ne du ñàkk ko mu ci jot taw ene wona fekk dina nekk loo xam ne sowetage makko sowetage am la aduna e lahara ak allahira mbiɗo ñaagui yaafuya ngi ñaan njëggal ceerno rokka kam ɗo tan ceerno may ko rek wonko jimi haalde o seeɗa am na lu fi bëgg a wax tuuti e ko waɗatnoo min ci loo xam ne defaloon na leen ko taw hay battalaa ko faanditi hen fekk amul leen na lum ci jublu so wonaa allah lu dul yàlla o meeɗi wiide min ne mas na leen wax haaraan ne ari ne fekk tam xarit moo ñëw o wi ndendi ne mu ne dajale leen coodon nagge ngeen jënd nag son cooti nag bu ngeen jëndee nag wi nge hirse ngeen rendi ko mbaɗon tale ngeen ngeen def ko ay ay pàcc pàcc moni fof ne kenn ku nekk nawa geɗal mum am ci wàllam galle mum ne yóbbu ko këram ñaamoyaa ko ne mu dem mu xewlu ci ñu def noonu nagge nge adda ne ñu indi yëkk bi to to dingiral ca ëtt ba ca ca wetu kër ga yalla yurmo amma soma yaafo ɗum e yalno yallah yeeso yermane ci ama soma jeggal ko kañumen kettuno e kirtigol nagge ngo ñoom ñoo feete won ci rendigu gattaga ceerno wi kam ne sérigne bi wakko emin to galle to ñi ngi cëkkër ga ar jeehan kaye ñu dem jiimo nagge ñu dem tiim ca ca nag wa min gari hamin paani ñi ñëw ba jub ko eɓe lelni nagge nge ñu tëral nag wa o wi koɗi ɓe kirsani nge de mu ne mbaarende guñ ko de a elleede ɓe ngoni ñu ne ah dafa mel ni de dañoo ñu koy waaj a rendi allah waɗi dogal ba ñu yegsi ɓe kirtaniga rendi woñ ko o jiimi hen mu tiimci o nangue junggam mu teeci lokom o ar jeeya mu ne kaay ñu dem min duttiti ne ñu dellu ne lu mu bëggoon rek tan ko mi jiima hen rek ma tiim ca ca nag wa oyi so allah jaɓi ne bu neexee yàlla kala nawɗo talde muɗum nde galle mum képp ku yóbbu maanaam cëram ca këram ɓesgu mum ñaami heen njabootam xewlu ci inchallahu taala inchallahu taala ma nafɓe dina leen jëriñ aduna e ak alaxira ne yiɗa yettade ne bëggul yegg sabu neetaade ndax yaru yar ko haalanno kam ko ci wax ji nga xam ne waxan na ko ko nde taw noon ndax daa fekki ni wona ka kala hunde bépp mbir ene jogi ɗo haalete am na fuñ koy wax kala hunde lépp loo gis ene am na fuñ ko dul wax it kono kam ne waaye nag ko yite famnir yimɓe tan pour xamal nit ni rek so tawi jiyaɗo allah o noddi bu jaamu yalla bi wootee nootoɗen ne ñu wuyu si sen nootima le bu ñu wuyu see ko nafoore men enen suñu njëriñ la ñun ɗum noon ne kon nag tinnoɗen nañu gor ɓesguji ñu nag suñu njaboot enen kadi le ñun it ko ngeɗu men suñu ci suñu muur la ha tenti noon ba mu gën a kawe nag enen hoddaɓe ɗo ɓe ñun ñi nga xam ne ñoo dëkk ak moom ko ngeɗu men le suñu muur la ngo allah rokki en bi ñu yàlla so allah addani mo geɗuma noon ni bole bole allah indire so nag nangu ha tiiɗa teye ko ba mu dëgër saa nangi boo ko teye allah koko waɗi yàlla def na ko ba noppi gasini wadde noppi na ci jëf ga sa boo ko teyewul an kam yow nag andu lu yàlla def an a yeɗaka ɗum yow génn nga ci waɗi gasni waaye yàlla lu muy def def na ko na ɗum noon ne kon nag alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin fo eɗen nangi ñun ñëpp jàpp nañu yo allah en yàlla nañ yàlla dimbali ɓeeɗan en wallude nanguirɗen ha tiiɗa yokku ñoo jàppale ci jàppande bu mu dëgër ñu ñëw wuyu si keɓen hen ñu am ci ko heɓete hen ko liñ ci war am le novembre le novembre le 11 12 12 13 13 allahumma salli ala سيدنا محمد وسلم لأن نكشرنا ننكبال كونتان لا موته مو يق في مو يق اللهم صل على سيدنا محمد وسلم at bu jot muy jëm ci kanam at bu jot muy ñaanal balaa moo ñaanal boppam ne koo dañ ko war sant di ko santal yàlla ne yàlla yàlla guddal fanam yàlla yàlla may ko mu yàgg ñoo jiite mu yàgg topp ci ginnaaw nee nañu jokk na ci ay seede ne na nañu ak moom ca Makkatal Mukarram ba mu taxawee nee ba mu taxawee. nee ba ca la taxawee ca Arafa. ca takkusaanu Arafa. nee mu taxaw mu ñaan. nee ñaan bu foor. nee bu mu noppee ci ñaan gi. nee mu gestu mu tase ko sowaat. mu jël loxoom ndeyjoor bu tedd mu ne ko jox naa la eh, ko ko sa wat ne ñaan bi nga xam ne moom laa ñaan ne Sénégal yëpp laa ko ñaan ah, rawatina nag quartier ba nga xam ne mooy Scat eh, Urbam ne moo tax moom bëri na wax ne moom ci boppam ne booy xëccoo ak ak yëpp ne booy xëccoo nag ne na fekkee ne yow yaa koy rat ne buñ ko buñ ko nangoo ci say loxo ndax mu fekkee ne yow sa biir fees na ne bu dee tamit nanguwuñ ko fekk nag yow amuloo ci mos ne américain yi comme li ñu wax bi yàlla bi yàlla sàkkee adduna bi mais Amérique la toog li des nag ñaan rek la nit ñi am. quand Dieu a créé le monde. mais quand Dieu a créé le monde. j'étais assis à San Francisco. San Francisco. pour bénir le reste du monde. pour bénir nag ñu ngi sant yàlla bu baax di sant Thierno. nee a Thierno yàlla yàlla guddal fan yi. ci tur xam ne ci turu mbooloo mi yëpp nag. Gittin bi nga xam ne mooy turu quartier yi nekk fii yëpp. nee quartier yi bëri nañ. ndax nekkul stakir bam rek. nekkul Fouzron rek. nekkul Kolesab rek. nekkul Amoo rek. nekkul CSA rek. nee na quartier yi bëri nañ. ne ci biir turu quartier yi yëpp. mais ñoom ñëpp ñu ngi leen ñaanal yàlla na yàlla guddal saw fan. nee li nga bëgg ci diine ji yàlla na yàlla may la nga yegg ca ba mu kawe sax sa jom. nee bu loolu wee. ñi nga ko. nee ñun ñëpp ñoo wax rek. kono noon ganda ceerno ko wirdu ceerno cheikhna ngeen xam ne ceerno mooy wirdu cheikhna ahmad tidiane chérif jappuɗo hannde jappuɗo ganda duuɓi sappo mbaɗa duuɓi nogas foppude hen ko teye tawi ak ko teye fanweere ñaar fukki atti ginaaw yëpp jeena ne ñëpp suñu ceerno léegi mu ngi dalal ñëpp di wax di wax ñëpp bismillah ci turu ceerno mu ngi sant yàlla bu baax di leen gërëm nee na mu ngi bu baax ci mbooloo mi nee bëggoon na Mouhamadou wax wala Abdoulaye er. Sène waaye nag la ko yàlla dogale nee mu ngi sant yàlla baax di leen gërëm imam Samba Ndiaye ne asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu nee ñu ngi jël nuyoo bii di ko teg ci loxo Thierno Habib nee buñ ko nuyooyee daanaka nuyoo bi matale na ndax bu nekk ba ngay jóg sa kër laajte nga sa xel laaj sa xol nga wax ne foo jëm nee sa xel ak sa xol. ak say cër sa tànk tontu la ne wuyu ji Cerno Hamidou ca gàmmu ga laa bëgg mu laajaat boppam nee na foofu loo fay wuti ne ana woote ngir màggal juddik rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam mais nga yebalaat sa xel yebalaat sa xol waaw foofu lan laa fay saxu nee nga tontuwaat sa bopp mais xanaa yërmande suñu borom fàgg fa yiwu àddina ak yiwu àllaaxira ñaanal suñu bopp ñaanal suñu njaboot ñaanal suñuy kilifa ñaanal suñuy wayjur ñaanal suñuy njaboot ñaanal suñu gox ñaanal suñu réew ñaanal adduna bi yëpp loo leen di ñaanal jàmm ne yàlla ñu ko yàlla defal nee na nag wax ji daal foofu la koy yemale ndax loolu lépp ngi ci lu mu gudd ak lu mu bëri lu mu gàtt ak lu mu néew ne li ci am solo mooy wuyu si nañu te ñoo ngi am yaqiin ci wuyu si gi ne ki ñu wuyu si kii sabab bi gis nañu ki tax moom mu woote gis nañu yàlla mi nga xam ne moo njëkk a woote woote yi jiitu ci nag ñëpp nag moom mii gis nañu kon nag yàlla na ko yàlla def mu nekk suñu muur bi jaay sayidi wujudi sallallahu alayhi wa sallam allahumma salli ala sayidina muhammadin alfatih lima ughliqa والقادم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم صلاة تعرفنا بها إياه اللهم صل على سيدنا 2018 la ànd ak Thierno Safina ci turu Seen ne depuis boobu min mbaɗa hajju minen e ceerno ibrahima en ne ñoom ak ceerno ñoom ceerno ibrahima pap mahtar en ak ñoom pap mahtar eh, ardaadi ceerno bachir en ak ñoom ceerno bachir min mbaɗa hajju ganduɗa ha joni aduna fof en haala ne ñu def aj goo xam ne ba tey aduna bi yëpp ñu ngi koy wax ceerno yaya haali ko lu ceerno yaya wax léegi ne aj googu am na lu bëri lu mu lu mu ci war a wax waaye nag ba beneen yoon rek incha allah mu ñëwaat ci. pour tiital du xew nañ fottude. nee na nag waaye daje nañ rek fi nga xam ne bari nañ fee daje. te hannde addumen ɗo ko jam teddindi jimlandi annabi sallallahu alayhi wa sallam. E liñ fi indi nag tey mooy daje. ngir màggal guddi gi nga xam ne teranga la ci ñun e ne képp ku koo xam ne xam nga bërëb bi bés bu set xam nga ne dañ fi daje toujours bés bu set dañ fiy daje ne yenn saa sax doo ñëw sax kon kam liggéey tan won waaye na nga xam ne fii liggéey rek moo fi nekk jàmme ñalaw guddi ak bëccëg beneen njàng ñi ñu ngi jàng ñi ñi ngi si jaamu yàlla ne bu ngeen yegge ci kaw ci kaw bâtiment bi ñi gis ay xali yu ndaw am ci tollu ci ay ñaari at ñetti at nek fi ri jang ay alquran ne kon xam nga ni bërëb bi bërëb bu am ñaan la nee nak ñu ngi sant yàlla ñu ngi sant seer ne ak wote gim ñu jàmm mojj jàmm jimlandi annabi ya rasulullah guddi bu baax bi guddi juddug rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ñaago allah kalduwa mbaɗɗen ɗo ne mu nga ñaan yàlla bépp ñaan biñ fi def yo allah yàlla na ko yàlla nangu galgaɗuɗo tampere ne képp ku fi indi coono wayno eh, ñaw lu mel ni ay jàngoro ay tawat walla caɗeele jafe-jafe àddina ne ne yal na yàlla réglé lépp yal na ñu yàlla may fan wu gudd ak mujj gu rafet ne yal na yàlla bàyyi ndi ñu suñu mbooloo mi ceerno ardo men sëriñ bi yàgg ñoo jiite ene hollu men laawol yàgg ñoo woon yoon wi enen ne enen ndew heen ñu nit ñu ciy topp enen payta allah ñu jëm ci yàlla ko ɗum tan de addu men loolu rek de moo ñu indi ay njaago ñee ñu ñaan yàlla eh, vraiment arɓe ɗo goo fof jarama no fewi ne képp ku fi ñëw ñu ngi lay jaajëfal bu baax eh. soko allah waɗi inchallah so gasi kadi ko howruto e jaam e cellal e nokku mum ne bu neexee yàlla bu jeexee ak jàmm kenn ku nekk yàlla dellu ci jàmm ci bërëbam soko yeehi taw toon jàmm e cellal e kisal e fof bu demee it yàlla na fa fekk jàmm ak salaam ak lépp ceerno ko neɗɗo moƴƴo nee na ceerno nit ku baax la tedduɗo nit ku tedd la sa yi meen fof wiyo min kaal ne boo gisee ñoom ñëpp mu leen wax ne nañu wax signe de respect la ne loolu yëpp signe de respect la ne teranga rek la da leen eh, telal rek lii nekkul tey depuis demb la woon kaaliri so wax na ko léegi ne depuis 93 lañ fi ñëw ne képp ku ma gis kenn ci ñoom dina ko jox cëram te yimɓe leggal ngal ɓurno wawde hewde ɗo te nitu quartier ɓe mo noon naño ëppu fii mais aɗa andi gammu so ari yimɓe cardirat wawi xam nga gammu bu jotee nit ñi dañuy tasaaro eh, ɓe jahat tiwawon ñii dañuy dem tiwawan jaha kawlak ñii dañuy dem kawlak ɓe jaha fuuta ñii dañuy dem fuuta ko ɗum tan minen min gari ɗo loolu la waaye ñoom ñëw nañu minen mbaɗi représenté bi yëpp gari ɗo en wayen leggal ngal fof ari ñoom bu ñu ñëwee mel nañu quartier bi yëpp ñëw nañu assalamu assalamu aleykum wa taala wa papa Abdoulaye Sène ne mu ngi nuyu mbooloo mi waaye jël nuyoo bi teg ko ci loxo sëriñ bi loxo Cerno Hamidou nee na Cerno Hamidou nag jotaay yu mel nii rek la leen di dajale ne jotaay boo xam ni dafay feeñal تفعل بني أمتي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تقول لي تمي تفكو ماندر قال ني يلين جتا يعمل في يب إتم نون رك لي دمي موم سن سيدنا محمد رك لي دخل لول موتخ جتا يتيرنو دفا نيخ ني بوي وخ نيخ neex buy jëm ci ruuxu nit ki nag muy bànneexu spirituel boobu ku ko yàlla defal may la nga am jotaay yu mel nii ah danga nga war a sant dolli loo santoon te nga gën a santaat nag sa borom nee na Cerno nag boo koy xool moom ci boppam taggee da ngay naan jikko yi nga xam ne moom la ñuy taggee Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa daf ko lamboo mu ngi commencé ci oyofte gi mu jeexale tamit ci générosité ne diggante boobu lu fi nekk ci qualité ak valeur yoo xam ne dañ ko rafetlu kenn ku si nekk boo waxee tey fii matale te wax nga it li ci am ne Thierno nag ñun suñu sens la sensu quartier bi la waaw ne mën nañuy wax sax ne sensu suñu dëkk bi nee ndaxte mënoon na toog ca Mali ca Kuñakaari waaye yàlla omatal ñu ko ba mu yegg si fii ne kon nag loolu dañ ciy sant suñuy boroom ne Thierno day faral di wax itam nit balaa nga koo xam nga dëkk ak moom walla ngeen ànd tukki. foofu ngay xamee nag lan mooy nit ki lan mooy jikkoom te am na yenn yoo xam ni jarul mu doon karaama déedéet c'est des faits ordinaires ne bés bu yàlla sàkk nga xam ne boo ko xoolee boo gisee rek da xam ne kii ah jaamu yàlla la de te teg na tànkam nag ci sunna te lépp lu muy wax lépp lu muy dox ci charia la koy teg loolu gis nañ ko ci ànd tukki ak moom moo tax tukki ànd ak nit tam baax na lool ci nga koy gën a xam nee na dañuy sant yàlla rek ne liñ fi dajale tey yàlla may ñu ay ati ati at ci suñu kanam ñu ànd si ak Ceerno ne mu gindi ñu ci ne teg ñu rek ci yoonu siraatal mustaqim ne nga xam ne tamit tariqa bii ñu bokk it loolu rek la woote nee kon nag ñoo ngi sant yàlla. wax ji du gudd ndax li fi jot a jaar yëpp ñu mu jot a dégg fa tabaarakallaahu matal nañu wax ji ci dëkkandoo ci xarit ci diggante sëriñ ak taalibeem ci diggante xarit ci diggante mag ak rak ne kon yooyu yëpp tabaarakallaahu daje na ci wax yi ne dañaan yàlla rek jotaay yii yàlla yàlla nañu ko yàlla fulal ci lépp luñ ci mën a am yàlla mee ñu fekkee ko ay déwén yu bare bare bare bari te na yoroon ak doon suñuy guide religieux yàlla ñu ko yàlla defal yàlla defal ko gudd fan wér gi yaram mujj gu rafet sutura daa iman nag ne asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu jërë ngeen jëf léegi ginnaaw sant yàlla ak yonentam lu dul wax rek alhamdulilahi rabbil ne lu tax mu wax alhamdulilahi rabbil alamin moom jaamu yàlla mi laab ki baax kii Ceerno nee ci ay waajuram la nekkaloon nee fi ñuy wax Caaroy Gaar nee bi ko yàlla andee foofu yàlla dogal mu jë mu jëflanteeg ay waajuram nee ki tudd Yaram Mbaay moom xam na ko e ak papam demb Siré Mbaay ak sëriñam bi ko jàngal Ceerno Tafsir Mbaye moom xam na ko. Tafsiru Ndiaye. Tafsiru Ndiaye. ne yàlla na ko yàlla yërëm jéggal ko. ne jàmm yàlla bu set wécc. ne ñoom ay géwél rek la ñu nekkoon. ɓe caggal e leraɗo mum ne guinaw yo allah ko yonenti ɓe fuɗɗorigoye jignaɓe amen itti haalaɓe ha wi ceer ne wata ko tambale signé weyjur mo dindi ko mu set wecc hawo gayni o o adde ɗum fuɗɗi addude tak mo soga wacci ci ñoom noon alhamdulillahi rabbil alamin ne nana kon loolu alhamdulillahi rabbil alamin ko ñaan guñu nangula babam yero mbay ko mbiyatmi o ne bi muy wax oɗo ñalawma so arino ne bés bi bu ñëwan ko suppéraji oɗata ay suppére la daan def o adda ɗo mu indi ko fii fii ci kër gi fii la woon foofu lañ ko doon def ne fu nit ku baax rek nekk rek day ñëw ne yàlla def ñoom ñëpp léegi dunduñu ñoo ñëpp dunduñu ne mu def tamit lu gën a yéeme nekk nag rakkam mu ngi fii def na délégation ñoo ànd Aysata Mbaye la tudd xam na ko Aysata Aysata Mbaay Aysata Mbaay kala nde gite amen gojji ne bis bu seen bët xonke jàmm ja moo xam jàmm la e jamalu ak ak safaan wa fof ɓaarano ne lépp dafay ñëw mu taxaw ci o holli min goɗɗo tiiɗi golle tiiɗo ito waɗen kanko e e ne mu won leen jëf yu dëgër moom ak alalam yëpp mu def ci lépp omo andi ne xam na yàlla xam na yonent bi xam na njabootam it ñu ngi nii seede nañu loolu nit ñi xam nañ ko nee na lépp lu ngeen wax ci Ceerno ci mbaax won ko won won ko heddi am na lu des ko jaamu allah laaɓɗo ceer yàlla bu bu laab la ɓooyaani tan ne yàggul rek o yiɗaa hay e gooto haala ne bëggul kenn wax monsieur le maire babacar sène maire thiaroy gar monsieur le maire babacar sène maire thiaroy gar ñande min jewdi ɗo miine makko minen ngarɗo miine makko e aissata bi ñu toogee fii ñoo ñëwandoo moom ak aysata ak moom o o mu def ñaan o wi ko allah mu ne lu yàlla dogal nga xam ne loolu la allah ko haali goɗɗum e goɗɗum waxul nag leneen ak leneen ko ɗum fof geɗe fof ne ne mbir yëpp dox na si diggante ak Cerno ɗo o wiyat ɗo no woodi ne jamono boobu daara ji amoon na barak barak wonno ɗo henna barak mo nekkon fii waktu fof min tawa ko ɗo henna waktu bune ñi fekk ko fi min jooɗo min jo ha ɓoƴ ñu toog ba ci yàgg rek mu joxe ñaan rek ne dem leen ñibbi yen ɗi nemaji ɗiwo duwaw ɗiwo duwatano ne xeewal yooyu ñaan yooyu mu doon ñaan andi ko ɗum wonto caaroy to ɗum woni to galle on xam ne ne moo nekk caaroy moo nekk ca kër ya moo nekk min kolaani moom نانا رفلة ونيو من كيد أجي نخيف ونيو فوفكو الله إن الله لوم الشيخ نعم تجاني دوم جمك لب يلا ينن تبي شام تجاني شريف أك إنيانا الله أنا عندي أم عندي نيا الله خمنا تموم خمنا مين بول عندي مامي خمنا مينام دبو أيسرم باي نانا فكام كنا لكم بوجي جن بع أيسرم باي اللي موقني خمنا مين قتلو بب أجي بين في عندي إن شاء الله إن شاء الله سوتي أو إدواو بده في إنيان نيان بدأ يدل firnde mum nde min gayɗo ñanden ne firnde gi buñ fi ñëwee barki dem mino makko e monsieur le moom ak monsieur le ak moom buggul sax ñu koy wax ndax am na aajo bu ñu amoon o itti butel woodi mu jël butel am lum ci def monsieur le maire ƴetti tan mu ne ko jël ko yow jaami ne mu dem emin jogino oto amoon nañu oto bëgguñ ko jaay mi yiɗa haalde wax de nee bu mu jël mu raayi ko ci rek nee bu mu yegsee rek benn bat waa ji fay te moom waroon naa ñëw waaye nag liggéeyu maa ba rek la <laughs> waaye nag yitte la fa tabaarakallaahu nee yàlla moo may chance boobu skat irbam nee moom ak ay waajuram ñoo nekk ca caaro hmm? nee def ba kéemtaan yoo xam ne yàlla yàlla rek moo ko yàlla dem indi ko leen ba fii defal leen ko ne lool sant yàlla la ak yonent bi ak Cheikh na Ahmad Tijaani Sharif nee na nañ ko ñaanal yàlla soutien de famille yu mel nii yàlla moo leen di may fan wu gudd ak mu rafet parce que kanko woni ndax defe nekk ngir faj aajo yi doomu aadama dendaangal dental wonɓe ɗo ndere boowal kono ak fu ñu mënta nekk est ce que irom ak mboolem ñu nekk ci ci diwaan bi yëpp yo allah hokkuma balɗe juɗɗe ne ko yàlla may fan wu gudd e battane moƴƴe ak mujjugo rafet allah nannganama yàlla teyel ko xelam nanngana haqqille innama aade kala garɗo ɗo hen teyel ko mboolem doomu adama yëpp ñu ñëw fii omo andi min moodata ko xam na ni fuuta la ñuy gàmm ne hic barki démb la kar dem démb la ñu waroon a dem. waaye xoolal yaram bi dee dafa mel ni daa am lu téye yaram bi. mu ne mu ne Aysata ndax Ceerno day def mawlud mu ne ko waaw. dix heures fii la leen fekk. ne ala kulli haalin lu des nag leneen. ne ñu ngi ñaan yàlla. yal na yàlla guddal fan yi ma ñu mujj gu rafet. depuis ci ay njabootam. incha allah yàlla na yàlla guddal fan yi may ko mujj gu rafet ne ku ku bëri ku neex a ci côté bu ne. incha allah ne xoolal rek ceerno Bachir mbooloo mi ñëw Ibrahima mu ne mu seen ko ci biir rek mu ne ko ñëwal lii lu rëy la ci moom. mu ngi ñaan njëgal yàlla yàlla fay yiw ne ñaan gu nangu la Seydi Ban Ceerno nee na ginnaaw bi ñu sante yàlla ak julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak ñaan ngërmande yàlla na nekk suñu sëriñ Mawlana Cheikh Ahmad Tidiane Sharif radiyallahu taala anhu ak mboolem xulafa om ak muqaddamam yëpp ak i taalibeem nee na yàlla nañu yàlla may bokk ci ñoom ne ñu ngi koy jaala ñu ngi koy jaarale ñu ngi koy jaaree nag ci suñuy sëriñ suñuy wasiila mawlaana Cheikh El Hadj Omar al Fuutiyu radiyallahu taala anhu ak barke suñu ñu ngi koy jaarale tamit suñu barke suñu wéjur suñu sëriñ Ceerno Basiru Muntaga Daha Cheikh El Hadj Omar al Fuutiyu radiyallahu taala anhu aleykum wa rahmatullahi nee bu mu ngi wax mbooloo mi yéen ñëpp asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ne ñaan nañu yàlla subhanahu wa taala lu yàlla denci ci nuyoo bi yàlla nañu ko yàlla defal bu defee it yàlla nañu yàgg ak moom bu ju bu yàggee it yal nañu yàlla may ñu muurloo ko ne buñ ko muurloo yal nañu yàlla may ñu am ci mujj gu rafet ne buñ yàlla mayee mujj gu rafet yal nañu yàlla may njaboot gi donn ko ba ilaa yawmal qiyaamati ne loolu yomb na ci yàlla subhaanahu wa taala yàlla nañu ko yàlla defal nee na bu loolu wéyee ne sant na mboolem mbokk yëpp góor ak jigéen e mag ak ndaw ñëpp sant nañu leen ñëpp ziyaare nañu leen ne ñëpp it jaajëfal nañu leen ñëpp it ñaan nañ leen ñaan sax sàkku nañu leen ñaan ne ñoom ñëpp it ñaan nañu leen Ceerno nee na yal nañu yàlla may yoolu tiyaabay guddi gi yal nañu yàlla may barke guddi gi yal nañu yàlla may ngëneelu guddi gi nee na yàlla nañu yàlla may bëgg rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ne yal nañu yàlla may fekkee naga nii déwén ak at yu bëree bëree bëri yi ñëw fekk ñuy yokk kenn bañ a wàññiku ne yéen ñi wax ñëpp ñu ngi leen di jaajëfal depuis ki njëkk ubbi wax ji mooy Cherif Diallo ba ci imam Ibrahima la ki nga xam ne moo jiite kaamil alquran yi ba mu yegg ci Cerno Basiru So mi jiite azkar yi ba mboolem ñi fi wax ñëpp ñii tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam man mii Ceerno Ibrahim e ak ñi ma àndal ñëpp ak ñoom Umar Fuuta ñoom ñëpp ne mu ngi leen di jaajëfal ne wax yi rafet na ne na yàlla na ko yàlla def jaamu yàlla gu nangu bi jaay rasulillahi sallallahu alayhi wa ني يالله موتلي سني جبلوا ييب تبارك رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين ني الحمد لله رب العالمين محمد صلى الله عليه وسلم ما رسول الله صلى الله عليه وسلم ها مونا الله سبحانه وتعالى فيا الله سبحانه وتعالى ne bu loolu amul kay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam màgg na fekk dara màggul ne kii nga xam ne moom mooy faatihi lima ughliqa moom mooy xaatimi lima sabaq moom mooy naasiri lxaqi bilxaqi moom mooy haadi ila siratika almustaqimi ne kii kay màgg na fekk dara màggul ne kon nag bu ñu ko màggalee ne ba ñu am ngëneel ci yàlla yàlla nañu yàlla moy ngëneel googu ne moom rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ne bi dara amulee lu dul moom mi amal dara googu mooy yàlla subhanahu wa taala نعم نعم نعم صلى الله عليه وسلم نعم نعم نعم نعم نعم نعم جنت امول بيديو امول غرب امول نيت امول جن امول ميم ملائكه صح امول امول درلو امول دول يالا nee ba mu feeñalee ci leeram leer yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu xamal leer gi la mu namm ci moom leer gi def la mu namm ci moom ba na mu bëggee mu doxalee ko mu dellu moom yàlla subhaanahu wa taala mu sant leer ga sant googu moom mooy feeñu mboole mbindaafoon gi moo tax moolana Alaaji Malik radiallahu taala anhu من وإنه إذ أراد الله نشأتنا أبان من نوره أبان من نوره نور النبي العالمي أيون الأرواح من نور الهدى البجسد وإنه جنس لالا معدن السطن لأمام سبحانه وتعالى بمن بقى فينال لمو فينال كبير ليرمغا mu feeña ci leer yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci biir leer yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lépp luy feeñ feeñ ci leer yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu def ko ay xeeti xeet mu def ko ay pàcc pàcc mu def ko ay mbindeefi mbindeef ne mbindeef ci kaw ñu sàkk leen ci leer yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne mbinde fi nekk ci suuf ñu sàkk ci leer yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne lépp nekk leer yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na yàlla nañu yàlla may xam rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam bii كم نكو إمام باتين جاي نياني لغي صلى الله عليه وعلى آله صلاة تعرفنا بها إياه نيال نيال جل تيان انتبه صلى الله عليه وسلم جل بيغا خمني دينا نيو خمال رسول الله صلى الله عليه وسلم نيال مني وخون ننكو سانك tawi a yiɗi rewde hunde ne boo bëggee topp dara andu hunde nde xamal yëf yi sa anda hunde nde boo xamul mbir mi sa wiyat rewande boo ko bëggee topp sa boo boo moytuwul a wasat rewde hono potiɗa doo ko topp comme ni nga ko war a toppee wala boo bëggee jàpp mbir te xamoo mbir mi boo moytuwul doo ko mën a jàpp ni nga ko war a jàppee bu len kuntum tuhibbuuna allah bu len kuntum tuhibbuuna allah fattabi'uuni fattabi'uuni allah wi so ɗon yiɗi yiddam yàlla ne bu ngeen bu ngeen soppee sama bëgg ma bëgg leen rek topp leen rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam bu leen topp bu leen jaar ci man sax bu ngeen jaaree ci rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam rek rek ma bëgg leen yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne man ahabbani ki nga xam ne bëgg na ma ahya sunnati day dundal sama sunna man ahya sunnati képp ku dundal sama sunna kaana ma'i fil jannati ëllëg yawmal qiyaamati sa aljanna maak moom ñooy dëkk ne topp sunnat bi sallallahu alayhi wasallam nag toppul ngay ngay ngay wari téere yu bëri déedéet dina islam bi yëpp ne fu mu topp fu mu tong rek mooy ci ñetti tomb mooy jaamu yàlla gëm yàlla ak topp yàlla ak yore jikko bu baax

ne ci kaw baax nag soxlawul dem ngay uti ay téere wala ngay déglu ji ay sëriñ mun nga sax dem uti ay téere wala déglu ji ay sëriñ waaye boo dégloo sa xol ah, nga nekk si ginnaawam rek doo juum lépp looy def ci àdduna sa xol wax la ni buñ la gisee nee loolu am na gàcce ne bàyyi ko baaxul lépp lu la soxol ñameloo xamal ne lu baax la ne tukaloo yi dañuy wax ni lépp lu nit di def di lakkatu na ko bàyyi baaxul ne téere boobu rek ne doy na nit ki téye ko yor ko fu mu toll ne lépp looy def ngay nëbbatu xamal ne loolu nekkul sunna yonent bi ne lépp looy def sa xol bi ñame ko sa xol bi gëm ko xamal ne ci sunna nga nekk ne loolu bu ci sax sonal sa bopp ne leneen li mooy nekk ak say mbokk nekkin gu baax soxla soxlawul ngay sonn dellul ci sa bopp rek lépp loo bëggoon ñu def la ko bu ko def sa morom sa mbokk lépp lu ñu la bëgg a defal nag defal ko sa mbokk bëgg ñu teral la te dalal sa teralal sa mbokk bëggoo ñu jàndi la bëggoo ñu ñu ñu toroxal la bu ko teg sa mbokk nee ñaar yi rek la lépp loo bëgg ñu def la ko nee bu ko def sa mbokk loo bëgg ñu defal la ko defal ko sa mbokk nee ñaari téere yi boo leen jàngee rek nee doo gaaw a juum nee lépp looy def di làkkatu xamal ne baaxul bàyyil nee lépp loo bëggul ñu def la ko bu ko def keneen nee ñaar yi boo ko jàppee rek te mu nekk dëgg ci yow. incha allahu di nga juboo ak sa borom te di nga juboo ak say nitu jamono ndax boo melee noonu rek da ngay nekk nit ku baax ne ne loolu nag xadis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko wax mu ne al muslimu man salima al muslimuuna min lisaanihi wa yadihi nee jullit day moytu làmmiñam nga bañ a lor sa mbokk sa loxo bañ a lor sa mbokk mboolem luy lore jëme ko ci nit nga bañ koo def boo ko melee rek nga nekk jullit loolu lu mu firi jullit nit ku baax la rek nit ku baax rek mooy jullit képp ku nekkul ku baax xamal ne islaamam manqué na même lu aduna bi di dox tey ñii wax ñu ngi jihaad yi ñii di yee ay fitina nee dëgg la sax noonu la seen xam-xam demee waaye xaqiqatan nee juum nañu nee juum nañu ne bis boo gisee. ko wana jam lu dul jàmm ci biir islaam xamal ne bokkul ci islaam bi islaam li ñu wax mooy diine jàmm diine yormande diine juboo diine juboo déggoo diine jokk mbokk diine teral sa mbokk diine teral sa gan diine teral mboolem ki la yàlla booleel xam nga ne foofu nag fitina amu fa wàll ne astutumaak na nga dem ba bay ci faat bakkan te kala baɗɗo fittan te képp ku faat bakkan haalidum naane waxoon nañ ko sànq man qatal nafsan mutaamidan man qatal man qatal nafsan mutaamidan fa jazaahu jahannam kala ne mbaɗɗa neɗɗo ne bis boo reyee nit tawaɗe tey fekk nga tey ko jubdima ko jeygol yeew sa pay safara la ala ko haali haala noon ne waxuma la nag jaaɗo ha haɓɓe sentire ko dem ba takk sentir ci boppam wara hoore mum mu rey boppam bandiraɓe mum mu rey ay mbokkam jullit on mi annda hol hol jeygol ngol naata bo ne kooku moom xamul sax ban safara lay dugg wattade nde ndax xaru bi ko jeygol jomum fay safara la borom kanamam di dem ne rey mbokkam jullit oh, kooku safara la jëm ne kon nag képp kuy jëf-jëf yi na xoolaat diineem nee na sa ko nag mu xoolaat ayibam ndax mat nag yàlla rek moo mat ne bis boo xeebee nit xamal ne am na lu xeebu ci yow ne bu ko nit ñi xamoon ci yow kenn du la nuyu لا يندي صلى الله عليه وسلم جي خلنا وخجي من امرت ان قاتل الناس حتى يشهدوا حتى يشهدوا ولا حتى يقولوا وحتى يقولوا لا اله الا الله لا اله الا الله من ديغل نانيما نا خيخ اك نيت ني فوفو واخو نيو لا اله الا الله لا اله الا الله ني بو نيو واخي لا اله الا الله ne seeni deret nag nekk kaaraange ci man ne ne dara du jóge ci man jëme ko ci ñoom ne du salaa sallam musul def jihaadi bi nga xam ne ci bànneexu bakkanam la ko defee dañ koy tooñ mu muñ ñu tooñ ko mu muñ ñu tooñ ko mu muñ ba mu yegg ci ci bërëb mu xam ne fii nag ne sas na taxawaat rek jàkkaarloo jàmbaarloo ñam rek moo sës eh, loolu rek moo fi sës eh, ne jihaatam yëpp noonu la demee oh, ne def na fukki at ña fukki at ak ñett ca makkatal mukarram ah, amul luñ ko wonul nee te benn benn méccital mosu koo def nit. lu dul rek mu wax ni. ne yàlla yërëm sama nit ñi. ndax xamuñu ma. allahumma hadi qawmi. wala allahumma arham qawmi. ñi. wala yërëmal ma leen wala suma borom defaral ma ñi ndax dañ maa xamul buñ ma xamoon duñ ma jëf-jëf ji ñu may jëf ne ngi maa ngi ñaan nag nag ñi na nga génnee ci ñoom ëllëg ñi nga xam ne dinañ ma xam roy ma ba am la ñu amee la comme niñ ko bëggee ne loolu moo tax adduna bi tey ñëpp nekk islam ba mu jugee ca makkatal mukarram mu dem ci madina munawara diggante makka ak madina 461 kilomètres 461 kilomètres la ne ñeenti téeméer ak juróom benn ak juróom benn fukk ak benn kilomètre ne distance boobu nit ñi jóg nañ ba ñuy yegg aywa hakke ne ci ay kilomètre juróom benn kilomètre kiloji joyi walla juróomi kilomètre eh, ci fi ñu dëkk eh, eh, oh, ne ñooñu kay dañoo ñëw tooñ la ne boo xoolee uhud ne ci madina la nekk ne yeefori makka la ñu jóge ñëw ba uxut ne dañuy dal ci moom ɗon so dartaki ne foofu nag bu jàmbaarlawul ak ñoom ah, ala ko waawi wadde ne am ala ko wonde sona amul beneen pexe bu dul taxaw rek jàmbaarloo moom hay dartade nde même taxaw bi sax jàmbaarloo gi sax makko yaade wadde mabɓe balaa moo dem di jàmbaarloo ak ñoom oh, disnodire e yimɓe makko ne dafa diisoo ak ay nitam ɓeeɗo ngari haa ɗo ñii ñëw nañ ñi ba fii yidde yande meɗen bëgg a dal suñu kaw holno mbatten jooni nan la ñuy def nag léegi ñi wax ni ñu nekk ci biir dëkk bi ñu bañ a génn bu ñu ñëwee suñuy soxna ñëw ci kaw yéeg ci kaw bâtiment yi yore ay xeer di leen sànni ñun nag ñu jàmmarloog ñoom ci yoon yi mën na am ñu gañe leen ñeneen ñi wax ni nañu génn ñu fekki leen bu ñu leen fekkee lu yàlla dogal lépp ñu def ko nee ba ñu dem ñu génn dëkk bi nee ñu daje ji ak ñoom xam nga ne kooku nag nee nekkul nitu fitina nee boo nekkee itam nag lu toll ak junni at wala téeméeri ñetti ñeenti téeméeri at ginnaawam nga bëgg a taxaw nga bëgg a jihaad ci dimbali ko moom te allahu akbar amul fenn amul fépp fu mu nekkul ci adduna bi tey laa ilaha illallah mu ngi fépp ci adduna bi nee loolu njumte la هي مولانا شيخ الحاج ابو الفوتي رضي الله تعالى عنه إيه، ميم مولانا شيخ عمر الفوتي رضي الله تعالى عنه هو دان جهادي دفول جهادي كان امات ينو دي جوغ رك دل شي اي نيت الله ديدت كون ولي دينغراي بومو نيكي دينغراي مو دون دارا مكو مو دف دارام مو دون جمعه مكو دف جمعه مو جانغينا موي جانغلي يمبé ngarane mbayo nit ñi ñew di di jaayu yimɓe ne ngi mono heefere ɓe wonnoɓe séraji ɓe ne yeefori nekk ci wet ga ɓen puli ñooñu tiit ɗum woni ko kalɗen e yimre men he loolu mooy la ñuy wax ci suñu téere bi wa xaafahu wa xaafahu man hawlahu man hawlahu min mushrikin wa haawalu wa haawalu idraarahu idraarahu fi kulli hin fi kulli hin wa dhalla wa dhalla sabiran sabiran li rabbihi al ali li rabbihi al ali wa hakadha wa hakadha da'bu nabi da'bu nabi wal wali nde ɓe njiimo nee ba ñu ko gisee nee nit ñi di ñëw nee ñu commencé tiit wa xaafoo man xawlahu min mushrikin wa xaafoo man xawlahu min mushrikin mushrikin en wonɓe e saraji nokku dingiraɓe ne mushrikin ñi nekk ci wet gi ci ɓen puli ñooñu tiit wa xaawalu idrarahu wa xaawalu idrarahu ɓe jiɗi noon han kadi lorde mo nee ñu bëgg nag lor ko ɓe joni ñu ne léegi nag nañu dem rek song ko ñu ray ko moom ak ay taalibeem diineem bi ne yam fi nde ɓe gummi ɓe gari bo ñu jógee ñu ñëw e jammako ci guddi e nder jamma ɓe puɗɗi habde makko ci biir guddi la ñu tàmbalee xeex ak moom nde ɓe jeene makko jamma bu ñu dalee ci moom ci guddi allah waɗi ne yàlla dogal kamɓe ɓe gummi ñoom ñu jóg ɓe kapti ñee ñu xeex ɓe pooli heefar ñu ñu gañe xeef yeefar yooyu koni jihaari o arde nii la jihaad bi ñëwee joni noon kamɓe heeferɓe foolaɓe ɓe ne léegi nag ñoom yeefar yi nga xam ne gañe nañu leen heeferɓe bandiraɓe mabɓe yeneen yeefar ay mbokkam coalition ne coalition ak ñoom mbi joni yo ngal yene makko ñu ne léegi nañuy ñëw dal dalaat ci kawam mu jóg dal ci ñoom mu daan leen o fooli ɓe mu gañe leen woɓɓe kadi ñeneen it ngari kadi ndendeɓe ñëw ànd ak ñële mbi ene yene makko bon bëgg dal ci kawam mu gañe leen wonta kadam ne layene layene léegi nag muy law di law di law ba mu dem dege mbere lolou moy jihadam ba mom radiyallahu taala ne kon nak hande hande woni wa wadde an e dine meden ne lolou moy li upp fayida ci suñu dine bi li yàlla wax ci alquranul karim bi ne nañ ko jëfandikoo ne innamal muminuna ikhwatun fa aslihu bayna axwaykum ne nit ñep ay mbokk lañ nañu rafetal suñu digante ki tijani la li yàlla dogal ci mom kii murit la li la yàlla dogal ci moom kii qaadiri la li la yàlla dogal ci moom kii laayeen la loolu la yàlla dogal ci moom kii ibaadu la loolu la yàlla dogal ci moom waaye ñun ñëpp laa ilaha illa allah muhammadu rasulullah moo ñu boole iqaamu salaat moo ñu boole itaau zakat moo ñu boole sawmu ramadan moo ñu boole hajjul bayt moo ñu boole lan la ñuy xeex nag ne li ñu war mooy nit ñëpp nañu nekk benn. yàlla ne waatasimu bi hablillahi jamian. wala tafarraqu yéen ñëpp. na jàpp leen. ne jëfandiku leen. ci buumu yàlla bi. bu leen tàggalikoo. ne bëri na wax nag. ne téye nag. ñetti façon moo am. mooy loo ne danga koy. Eh, da nga koy wel naa de. Eh, dañ koy téye dañ koy téye. da nga koy gàddu. dañ koy gàddu. da nga koy gàddu. Ah, nee da nga koo gàddu sax da nga koo téye. nee lii da nga koo téye. lii nag da nga cee ngoy bu mu dëgër waaw. nee li nga li nga li nga gàddu. li nga téye ne li nga téye wala li nga gàddu ne ne li nga xam ne moom nga gàddu rek ne boo ko bàyyee rek leneen may dal loolu day dal day wàcc day day wadd day daanu day wadd nee nga dem ci sa yoon ne li nga téye nag boo ko bàyyee dafay dem rek nga dem waaye li nga jëfandu nag boo ko bàyyee yow yaay daanu ne buumu yàlla bi nag bis bi nga xam ne nit ki ngoyul ci ba mu dëgër moom mooy daanu ne buum ba des fa kon nag yàlla ñu yalla dimbali yàlla nañu yàlla dimbali ci suñu diine ji yàlla nañu yàlla dimbali ci suñu tariqa bi yàlla nañu yàlla dimbali ci suñu nekk gii ànd bi neex na maanaam bëri na néew na li ñu jaamu yàlla yàlla nañu ko yàlla nangul bëri na néew na li ñu juum yal nañu yàlla jéggal ñee ñu xam de dina islam bi ku ko téye ku ci moy moy na bu dëgër de téye na dëgg ku ko bàyyi bàyyi nga dëgg waaye yoonu tijaani tamit ku ko yàlla wërsëgal nga téye ko na la wóor ni ne kenn naxu la na la wóor ni téye nga dëgg boo ko bàyyiwul kurus gi دولا بايد بمدوغل شي حضر يالا اخضر ينت يالا الله يوم القيامه نغ دوغ الجنه تامل امول بن اتي تامل بن شنو بغير حساب بغير حساب ولا عقاب ولا عقاب لول لا يالا دوغل الشيخ تجاني رضي الله تعالى عنه nee na yàlla nañu yàlla may nekk ay tijaan yi dul simeeku ba abadan nee yàlla nañu yàlla may nekk ay tijaan yi dul simeeku ba abadan bi jaay rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam Ceerno ne mu ngi leen di jaajëfal ne comme ni ko Ceerno Yahya waxee depuis ci dëkkandoo yi ba ci mbokk gi ba ci kër gi ba ci njaboot gi ba ci xarit yi ne ku lim rek juum. wala juut na. wala nga guddal. Oh, loolu tamit ayiba lay doon. boo juumee. ayib la. boo guddalee. ayib la. waaye nag. comme nu mu ko baaxoo di waxee. ku def. nga def te yàlla tax ak ki ñuy defal na ci gis yàlla ki def day fàtte ki ñuy defal day fàtte yàlla mi dul fàtte nag yàlla yàlla fay ñëpp képp ku ci wax ku ci def ku ci ku ci jëfandikoo ku ci def góor jigéen ne mag ndaw ku ci ñëw yàlla gis na yàlla na yàlla fay amin nee li tax du waxtu rek bu waxee kii day wax kii te moo waxandoo ñi ko sopp ñëpp ñu ko bëgg ñëpp mënu ñoo waxandoo nee na nag nu ngeen ko bëggee rek ne bëgg na leen lu ëpp loolu ne ñun ñëpp nag yàlla nañu yàlla bëgg si suñu ànd bi yàlla na ko yàlla def àndu yàlla yàlla na ko yàlla def ànd goo xam ne àndu yàlla la yàlla na ko yàlla def àndu yàlla يالا نكو يالا ديف اند غو خامني مباخ يي ادنا الاخره با الك يوم القيامه نين نيب ني دك كم نكو انت صلى الله عليه وسلم وخي المرء المرء مع من احب كان نيوانا تي انت صلى الله عليه وسلم من انت صلى الله عليه وسلم ني كان لا بس بينتي يا انت وي وكو Ah, nee ba ci kanam oh, mu laajte waat ko mu ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam kañ la ba si penc yonent bi woyewu ko ah, nee ba ci kanam oh, mu laajte yonent bi sallallahu alayhi wasallam kañ la ba si penc yonent bi ne ko bu bu saa taxawee nee loo loo loo ana sa yóbbal loo ko waajalee mu ne amul len ma lu ma ko waajalee lu dul nag bëgg la rek. yéen tamit ne ko ah yow de moom texe nga ndax ëllëg almaru ma aman ahab ne ëllëg képp koo bëgg nga ci àdduna kooku ngay nekkal ëllëg ibnu abbas radiallahu anhu ibnu abbas radiallahu anhu nee na minen sahabaɓe ɓe ne ñoom sahaba yi gila ñene min naati e diine libbi ngeen gisee ñu dugg ci diine ji ñande muɗum bo bés boobu ala min belti amul bu ñu kontaane ah, ba mbégte ɓurni nden ɗo oh, weltare gën a ëpp mbégte boobu sabu eɗen mbawi julde ndax mën nañoo julli fekk julli gi man manqué mën nañoo woor tawane manque fekk koor gi manqué mën nañoo génne asakal fekk manqué na mën nañoo aji fekk manqué na mën nañu sax def jihaad yi fekk mu manqué waaye bëgg yonent bi nag nee ñun ñëpp bëgg nañ ko nee bés boobu kontaan nañu woon lool ñu nit yal na yàlla def tefeel rasulillahi ci suñuy xol yal na yàlla def tefeel rasulillahi ci suñuy xol yal na yàlla def tefeel rasulillahi ci suñuy xol yal na yàlla def si ñun barke yal na yàlla def suñuy njaboot barke yal na yàlla def ci lépp lu ñu fàggu barke ne yal ñu yàlla may fekkee na gën yi déwén it fekk ñuy yokk kenn bañ a wàññi آه، آه، بشير وارث عن جده عمر بشير وارث عن جمال الحمد لله رب الواحد الأدي في ملكي جل أن إدراكي البشر بشيرنا آه، وارث عن جد

وارث الأنجده شرنا رضوان ربي عن المكتوم ملجئنا ومت كل ولي هكذا القدر بشيرنا وارث الأنجده عمر بشيرنا وارث الأنجده جده شرن كل زمان أتى يختار خالقنا في خلقي سيد اليديب البشر بشيرنا آه. وارث الأنجده عمر بشيرنا وارث الأنجده شرن بشرى لنا معشر الإخوان إن لنا شيخا بأمة الإسلام تزدهر تزدهرنا ورث عن جده أمر بصيرنا وارث الأنجدي جرني بشير بن منطقة نور يداء به في كل ناية والفضل ينتشر بشير آه وارث الأنجده عمر بشيرنا وارث الأنجده جرني خليفة المصطفى المقترس ما أبي خليفة المصطفى المقترس ما أبي عباس والوالي والفاروق منتصر بشيرنا ورث الأنجده عمر بشيرنا ورث الأنجده سيده سيدي تعال سيد بن نور والمكمي ما خفيع بشيرنا وارث عن جده عمر بشيرنا وارث عن جده عمر بشيرنا وارث عن سيدي تعال علم وجود وإحسان تقير توادون قد أبصار له تبرو مسيرنا وارث الأمجده أمر مسيرنا وارث الأمجده جرن يوصل الأرحام والأرحام amwaal yunfiquha يأوي اليتامى ومسكينا فلا يزر بشيرنا وارث عن جده عمر بشيرنا وارث عن جده سيدي تعالى يوصل الأرحام والأموال ينفقها يأوي اليتامى ومسكينا فلا يزر البشر بشيرنا وارث عن جدي عمر بشيرنا وارث عن جده وإن رأيت بشيرا في محاسنه تزنو حتما أوابلا مطر بشيرنا آه. warisul an jaddihi umaro basiruna warisul an jaddihi cerno le man jaawo طالبا او خائفا وجلا يلقاه مبتسما ينسى به الخضر بشيرنا وارث الانجده امر بصيرنا وارث الأمجده أمر الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين ne comme guddi gi ñëw na ba yegg si fii tey ne alhamdulilahi rabbil alamin def nañ ko comme niñ ko bëggee woon ne lépp ànd ak dal ak teey ne tamit alhamdulilahi rabbil alamin góor ñi féetee boor jigéen ñi féetee boor ne yàlla defal nañu ko naka noonu it ne yàlla nañu ko yàlla nangul amin ne hadaay rasulullahi salallahu alayhi wa bii ñu génne yàlla na yàlla wuutal barke yàlla na yàlla remplacer barke بجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم لي نياري خسيده يي ني وي نك تي مجنتال الحمد لله رب العالمين يالا داف كو جارالي تي اي لوخوم وي ويغا خامني نيك نانكو وي تي بشيرنا وارث عن جده عمر بي 2008 الله خدري boobu 2008 la yàlla dogal ñu bind ko loolu ba ma ko la woon loolu mu ngi ànd ak Cerno Ibrahima Laa mi moom ak xamitullah xamitullah rabbi is bi ne lépp daf ko bind ci benn bës ne loolu am na lu nekkoon sabab bi ne waaye nag sant yàlla ci lépp li ci wax lépp lépp nag lu wér la bashiruna waarisun an jaddihi umaru de bashiruna waarisun an jaddihi umaru ceerno men ceerno bashiru heewaani wadde commentaire e ko way hono daani ne suñu sëriñ ceerno bashiru bëriwul commentaire ci wax yu mel nii e waaye xam ne nii way wii kontaan na ci moom ci boppam moo ko ko wax nee ñu wax alhamdulillahi rabbil wahidil ahadi mboolem cant ñeel na yàlla bi nga xam ne mooy kenn ci meloom ci melokaanam ci jëmmam mooy kenn it ci ay turam mooy kenn it ci ay meloom mooy kenn it ci liggéeyam moom mi nekk kenn nag ci mboolem léppay lépp ne màggal na déggu mboolem gis yi nga xam ne ñu ngi koy gis bët gis yàlla ŋaas ŋaas moom yàlla màggee ko ne firndem rek ne ngelaw mii di dem kenn mënul gis ngelaw ne ngelaw mbindaa fon la yàlla moo ko sàkk mbindaaf gi yàlla est mungi que yàlla ak ngelaw te moo gën a jéggi lépp te kanko allah ɓuri ɓattade e henndu te moom yàlla moo la gëna a ci ngelaw a ronki a ronki te mëno gis ngelaw so a wi a allah soo bëggee wax ne gis nga yalla lolu wax la rek yalla nekkul kuñ kuñuy gis ne ku wax lolu it commentaire. dafa def commentaire. explication. mu def explication. mu def ni Ni, ni, ni. la. waaye nag wa taala moom màggaayam ëpp na ci bët gis ko. moo tax wa ala نني جولي رسول الله صلى الله عليه وسلم والآل والصحب ثم التابع الخير والآل والصحب ثم التابع الخير يلا جولي رسول الله صلى الله عليه وسلم جولي شاي نيتو كرم جولي شاي صحابام جولي شاي نيتو بوتي نيوم نيتو بوتي نيوم اك نيتو بوتي نيوم رضوان ربي عن المكتوم ملجئنا رضوان ربي عن المكتوم ملجئنا نعمر من ذي الله ننك سنيسرين بينا خمني نكو يالله الله غرات أمول كأن نكو خم الله با لدولي يالله أجن تي الله محمد صلى الله عليه وسلم أجمع مني تابل غرات بي نلو يا غول دارك def nañu ay bés yu mel noonu fële ca ca suñuy dëkkuwaay yu doondu ne dëkk Ceerno Yahya Konte mi toog nee ñu def fa zikra alkatmiyati li Mawlana Salaaji Mawlana Cheikh Ahmad Tidiane Chérif radiyallahu taala anhu nee ñu dafa kat mi goo xam ne bu mel noonu yombut nee jullit ñëpp kontaan tijaaniya yëpp kontaan waa doondu yëpp kontaan mboolem réew yi nekk ci wet gi yëpp kontaan ñu teeru leen ñu teral leen ne yàlla nañu leen yiw ne suñu sëriñ bi cheikh tidiane mi yalla may garat bi ne yàlla na yàlla suñu borom yokku ngarmaan dem ci moom ne bu nit yéemoo ci loolu dafay fekk delluwul ci ndogalu yàlla moom mooy mu middi kulli waliyin bépp waliyu moom mooy bu koy dolli ci yàlla hakkazal qadru nii la ko yàlla dogalee ne bu yàlla dogalee mbir nag ne kenn mënu ci dara bu la neexee soo bëggee noonu la soo bëggul it noonu la ne bushra lana ma'shara al-ikhwani inna lana ne mbégte ñeel na ñun mbokk yi ñi nga xam ne ñoo aju ci Ceerno Basiru Muntaga Taaha inna lana cheykhan am nañu sëriñ inna lana cheykhan am nañu borom xam-xam inna lana cheykhan am nañu aarifu billahi inna lana cheykhan bihi ummatul islami tazdahiru bihi ummatul islami tazdahiru o ceerno mo ngannduɗaa l'islam ne faaranomo faarnoroomo ne sëriñ bi nga xam ne islaam bi mu koy puukarew sabu ceerno wiyetee ko gandu ndax sëriñ dañ koy wax borom xam-xam ceerno wiyetee ko koy wax ne ku baax la ceerno wiyetee ko koy wax ne kuy jokku mbokk la ceerno wiyetee ko jaltiniɗo ceerno koy wax ne ku suufel boppam so wayi noon ne sëriñ boobu bu noonu islam da koy puukare بشير بن منتقى ني بشير بن منتقى سوتي الله ام دام اون تيرنو ويته ني بون لا جي سيرين بوبو نومو تود ويته بشير بن منتقى ني ني بشير بن منتقى دوم منتقى لا تود منتقى بي طه منتقى دوم طه طه في شيخ عمر رضي الله تعالى عنه طه دوم شيخ عمر رضي الله تعالى عنه اون دون دي ني كوكو دي نوران ني نوران يضاء به يضاء به في كل ناحيه في كل ناحيه wal fadlu yantashiru kanko de allah waɗi annoore diine e moom delle yàlla def leeru diine ci loxoom annoore nde leer gi nga xam ne cenɗe ɗe fof yëpp gox yëpp mu ngi mu ngi mu ngi niit eywa e barke annoore annoore makko ci barke leeram kala foo dem rek so yehi boo demee penku ba nee di nga fa fekk ab taalibe bi nga xam ne nee ci Ceerno Basiru la jokk mu ngi toogal foofu diine bi mu ngi toogal tariqa bi di toogal mbokk gi boo demee penku na ko noonu sow boo demee bët saalum boo demee feneen fi tamit noonu ne kii mooy ki nga xam ne مويكرنا بشير منتقى طه سعيد بن نور ني سعيد بن والمكمي ما خفيا ما خفيا بشيرنا بشيرنا وارث وارث عن جده عن جده عمر سعيد بن نور ني سعيد بن نور من سيدنا رحمه الله عليه ني سيدنا رحمه الله عليه والمكمي والمكمي تيرنو احمد عمر هوري ني وسو اك احمد عمر هوري ما خفيا ما خفيا كم بدر بي نيوم دي نبونيو ني وخني بشيرنا بشيرنا بشير امن اودو سني بشير بي وارثون وارثون ني دوننا ان جدي ان جدي كي مامم عمر عمر شيخ عمر رضي الله تعالى عنه

mu ne képp ku fee ñëw ci suñuy ay bés yi nga ñëw te yàlla tax yiw mu ngi ci aduna ak alaxira garɗo yi cheikh oumar ku ñëw gis cheikh oumar cheikh oumar ko malaɗo cheikh oumar ku texe la kala jiiɗo malaɗo ko gis nag ku texe da ngay texe on lomtiɗo cheikh oumar noon ne kooku nag wuutu cheikh oumar na on arata ɗo inchallahu le 11 inchallahu kooku moy ñëw le 11 o wonde men ɗo le 12 mo ñun le 12 o wonde men ɗo le 13 mo ñun le 13 o ñun ba bu ñu bëggee yëpp o duwono en mu ñaanal ñu o yaha mu dem ñaagoɗen allah ñu ñaan yàlla ba beneen at allah addamo yàlla indi ko mu fekk ñu fii ne nit ñëpp xam nañu ah, ne yow yaay wax ni Ceerno Basiru So allahumma Ceerno Basiru noo ko doon waxee ne day ànd ak amin ne allahumma Ceerno Basiru dafa ànd ak amin moom moom Ceerno nee na xam na ko ne dégg rek daw eh, eh, ne ak rëcc daw ne dégg daw eh, ak gis daw eh, ak rëcc daw eh, ne xam na nag ñetti ñi ne ki rëcc ba daw kooku moo gën am lu ko we lu ko leer ndax kooku gis na dégg na <laughs> kee moom dafa ko rek daw kii nag gis na daw ne na kii dafa rëcc daw ne fii gaynde yangu na fii a ah, nga dégg ko a ah, dogi nga daw ah, ne am na loo def oɗo ne kii yehi ha yimbarodi dem na ba gis gaynde gi jogi daw onne wonko yi moom it am na lu ma gis oɗo noon kii nag yehi ha gis na ba gaynde gi téye ko waɗi feere mu feexe e ballal allah ci ndimbalu yàlla o dogi ba mum raccu ko ba daw soɓe kaltoye ñoom bu ñuy nettali mbarodi way ki naka la gaynde gi mel oh, yaakaar na ne nag ki rëcc ba daw kooku la gën a am lu ko wër. Eh, eh, ah, ah, ne bu dee wax nga ne ñaanam dafay tombeek amin. ñee eh, Ceerno ne moom nag leer na ko moom. Ah, moom moom xam ne ñaanam day ànd ak amin. Oh, te it ñaanal na it bërëb bi. Oh, ñaanal na bërëb bi. Oh, ñaanal na bërëb bi. ne loolu it cay seede la. Ceerno Bacci Ndiaye. Ceerno Bacci Ndiaye. bokkeen yor na ba léegi film bi. donc Thierno man Thierno Seydou Nourou wi moom suñu sëriñ Thierno Seydou Nourou di wax ni képp ku gisul Cheikh Oumar bu gisee Thierno Bachir moom mooy Cheikh Oumar wax na ko ci si secret wax na ko tamit ci digg nit ñi dem na ba kër Siré Diaw ko galle kaalidu kër ñam kaalidu sow o tawi toon ne mu fekk fa ceerno na musidɗo mo wonno ousmane am na benn mbo xaritam bu tudd ousmane mu ngi campement ngeeko mu ngi campement ne fekkee na ko o ari kako ceerno saydou nour ne mu ñëw moom ceerno saydou nour rahmatullahi alayhi rahmatullahi alayhi o tawi ɗon siré diaw mu fekk fa siré diaw ko rahmatullahi alayhi tan mbiyeten han kadi moom tamit rahmatullahi alayhi la ñuy wax ba léegi sabu o majjina ɓuuri haka duuɓi sappo pawɗi joni ndax réer na lu ëpp fukki at lu teg ak léegi te ceerno Saydou Nour haalen ɗum de ceerno dundam ma yimɓe fof kaaweno yaari ne ñëpp dinañu yeemu nu muy demee kanko no fintano majji hay goto ndatoyi moom dafay dafay yeewu rek réer kenn xamul fu mu dugg am na léegi fukki at ak lu teg léegi walla sax lu ko ëpp léegi o mu teg ci loxoom ne mu teg loxoom bu tedd ba moom Seydou Nour ci ci loxo ci loxoom càmmoñ moom Siré Jaw euh, mu teg ko ci mbaggam mu teg loxoom ndeyjoor bu tedd bi ci ci loxo ci kaw Cerno Bachir mu ne Siré Jaw meyɗi yiɗo cheikh oumar mos nga gis cheikh oumar omo taal mi meeɗani yiɗo cheikh oumar mu ne ko taal mosuma gis cheikh oumar cheikh oumar nani mu ne ko aw cheikh oumar mu ngi nii o wi siré diaw mu ne ko siré diaw on wimo taal mu ne ko taal o wima meyɗi yiɗo cheikh oumar mu ne mos nga gis cheikh oumar o wi ala meeɗa yiɗo cheikh mu ne ko déedéet mosuma gis cheikh oumar mu ne ko cheikh oumar mu ngi nii ba mu mat ñetti yoon kanko ceerno ousmane sow moom ceerno ousmane sow at bu jot mu ngi ñëw fii ci ziar bi mu ngi campement Ngexoox moom nag fekkewul waaye ñu ko fekkee ñoo ko wax te ñu ko fekkee ne wóolu na seeni kaddu kanko ceerno ne moom ceerno it wonko min kaaldi heen am na lu ñu ciy waxtaan wiimi mu wax ko mi annda somi cheikh oumar woɓɓe ɓe ne ba xam cheikh oumar ñeneen ña ñeneen la waaye yow moom sa cheikh oumar la te lolu it amna luko waral ko waɗi ɗum ɗo ko ko waɗi ɗum ko kadi li li waral nak ne sante nako yàlla kala giɗam kadi ne bépp soppem it ne foti yettirande ɓe ɗum allah war nako ko santale yàlla andi fof non xam lépp nak xali fof wax lépp onno yahya konte wiir comme niko yahya konte waxé sank kanum bonni fof moom moo yàq lépp haalirani ɗum waxee wu ko illa tahaddusan illa tahaddusan bi ni'matillah bi ni'matillah subhanahu wa taala subhanahu wa taala ceerno amadou oumar hoore ñiwa kan nene ne ceerno amadou oumar oumar hoore ñiwa momit nde wiye janngodiri mum omo deme jangge ci mom ha o immi toon momo jogue foof no almuɓe mbaɗanta ceerno ne no taalibe ne defal sérigne bi dawana ceerno ne xeyal sérigne bi o yiwato daw mu ne yow bul xëy gootal ceerno kam ne ne bés ceerno moom بس مدم توليا ممت من داي باركيلو دافا نييو سي تيرنو نيب دي ليغيال تيرنو نو فامو ليغيال تيرنو بي تيرنو امر ناني وي لاد بي الله مو مو وار سي فاسام تاي موتون فك كو فوف مونيكو ام ارجين دوغال ني دم لو وارنا تاج داني لي ا ا waar wi nga xam ne ba euh, moom nga tagg sabu toon so a yii gooto fof taƴante ndax foofu boo demee kenn ku nekk dañ koy daggal waaram lamdi to lowre ceerno basir basir basir bi mu laajte waaru ceerno basir bi ñu ko daggal anamu ɓe kolli mo ñu won ko ko o wi dokki kam jalami remanamo mu ne àllel ma ɗilleer ba ma bayal ko ko kono hojom almuɓe ndemi ɗum ha ne lu minute talibe yi bay lépp ceerno o wi janngo kadi so a ari mu boo liggéey ceerno boo ñëwee mi ara mi dawam ma ma ñëw ma xëyal la e paye hodde ne ñu ñu paré di ñibbi o mu ne ceerno bashir ne na war ci fas wi kanko yaara mom mu mu doxé tankam ceerno bashir ala wawa dum ne mom lolu ne yek ci fas yi mom serigne bi mom mu doxé tankam ceerno na dedet mom munul lolu ne ñom ñaa ñep kenn yegul ñu ñu ñu and ak fas yi dugg ci biir dëkk eh, ne am lu digënté ñom ñaar rek ñoko xam kenn xamu ne mos nañ faa dem ceerno ibrahima laa ko seede ceerno ibrahima laa mi seede la o jooɗo yeeso rawda ceerno ceerno ceerno amadou mo toog ci rawda ceerno amadou o woyi mo jooyi gite makko ba mel ni robinet ubbeku o wi eyi ma xam góor gi o wi geɗe ne juróomi mbir o rontuno e ci sériñam geɗe joyi ɗe fof mi ci moom waaye waxul waxu ko nag juróom yooyu lan la ne kooku nag la ñu gis ne saïd bu nuur wal makamiyu maa xafaya bashiruna waarisun an jaddihi umaru ne yàlla nañ yàlla may am ci seen barke ne yàlla nañ yàlla may seen barke ne képp ku am seen barke sikki amul am nga barke Cheikh Omar képp ku am barke Cheikh Omar sikki amul am nga am nga barke Cheikh na Ahmad Tidiane Sharif radiyallahu taala an ku am barke Cheikh na Ahmad Tidiane Sharif radiyallahu taala an sikki amul am nga barke Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ne ku am barke Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam am nga ngërmande yàlla ne loolu dong la ñuy sàkku yàlla nañ ci yàlla muur yàlla nañ ci yàlla muurloo yàlla nañ ci nee na yéen ñëpp ñaanal nañ ñu ne ñaanal nañ mbooloo mi ñëpp ñaanal nañ ñëpp ne yéen ñëpp it mu ngi leen sàkku ñan taalibe moo dëgër ne yàlla na ko yàlla def taalibe yàlla na ko yàlla def taalibe yàlla na ko yalla def taalibe yàlla may ko it muurloo taalibeem ngam barki seeni xarkanam yu teddi ngam barki li ngeen wuyu si ngir jëmmi yàlla ngam barki guddi gi bu dee am nañu taal nekk taalibe nee ñu muurloo ko li ci war a am ñun ñëpp ñoo koy bokk ne yàlla ñu ko yalla may bi jaay rasulillahi sallallahu alayhi wa Ceerno ne léegi nag kenn ku nekk ci ñun. na jàng Fatiha. ñeenti yoon. salaatul Fatiha. ne fukki yoon ak ñaar. Eh, bu ñu noppee ñu wax liñ ci war a wax ñu wax liñ ci nar a teg. yaa latifu laa bi kenn ku nekk nanga nga def yaa latifu yaa latifu ñetti téeméer ak fukk ak ñetti yoon nee na kenn ku nekk na nga fas sa aajo nee na nit amul lu mu mën waaye yàlla nag dara tawu ko yàlla mi mën nag won nañ ko suñuy aajo yëpp li nëbb ak lu feeñ ñu nag mboolem ki aajam aaju ci ñun nee ñëpp teewal nañu leen même bu ñu teewalul ñaan nañu yàlla yal nañu yàlla defaral lépp yal na yàlla faj suñuy aajo yal na yàlla may ñu wér suñuy yaram yàlla may ñu fan wu gudd yàlla barkeel suñuy njaboot yàlla barkeel suñuy wërsëg mais ñu tamit mujj si mujj gu rafet nee ñee yewen na ci yàlla yal nañu ko yàlla yewenal yal nañu ko yàlla defal ne kenn ku nekk na def yàlla diifu yàlla diifu ñetti téeméer ak fukki yoon ak ñett